bopp bi mooy miim sëtën bi mooy xaaji ndigg li mooy miim ñaari tànk yi di leer muy muhammad alaaji ma silla sa góor ga na ma moo tax rakka bu ne ahmadu la mhm. boo allahu akbar lii fu ahmada ngo booru kowee xaagaa ngo nga siggi sujjóot sa jëbi sa ñaari loxo sa ñaari woom mii mu ahmadongo boo siggee toog muy del muhammadun ahmadu maaxi waxaasiruna nabi marhamatin tawil wal taxawa wasalliyan ya ilahi وفيا أبدا أنا محمد المختار الكتاب moo tax yonent bi du moroomu kenn bay mbay doon da sa góor ñaata tur ci nekk tur yàlla ci nekk. moo tax tariqa bi ñu la ci wax boo ko xamee it neel xaw ma ko rek. xamoo am na benn góor. Seydi Xaaji Maalik da koo jox tur mu ni ko kii amoon naa ko. mu ni ko waaye joxuma la ko woon. bii doose nañ ko te bee doose ñu ko woon. waaye ba mu génnee mu ni bu ma wanul woon ni xam naa ma def ko kéemaanu jamono. waaye bala koo balaa faatu ma def mu am ci fatu. ma ni ko bàyyi xaw ma ko mu ni ma jàngal bismillahi allahu ngo ñaata xaraf la gaay allahu ñaata xaraf la gaay liif laam laam alsaqee bàyyi mbay ni ma ñeenti rakka tisbaara ngo rahmaani mu ni ma bàyyil alif ga ko xëcc ca kaw raa xaa miim du ñeenti xarafa ngo mu ne ma ñeenti rakka takku saana ngo rahimi raha yaa mim ñeent mu ne ma ñeenti rakk yi gee ngo alhamdulillahi rabb raaba ñaari rakk yi suba ngo alalamina arrahmani rahim maliki min lam ñetti rakk yi tiwi sa inna salaata wa ma julli leen julli مصاب المصطفى في حالة الألم وفليم يا إله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدون نور كتب المحسنين والمحسنات di ndokkeel ñëw di leen ziar قرب بخل وبحق ما أحببت وبعثت وأجبت تدعوة من به تزهر ku ma soppal yàlla burbu baal wa di xaqina ababto wa baasto wa ajabta tadawata man bi jiitazo bés bay faatu na nga ina loo xandori woji mbay nanu way loote ko kii la ko jiital mbay dafa ànd nga maayam yu wër góor gi bu jiitoo nun bu nu mbay bu nu mbay ba ko woowee mu mbay la ko jiital mbay waa baytul wilaay mbay waa am ca kaw sara ca kaw sëñ Saliw ca kaw sara ëllë ca kaw sara mama Nazir ca kaw sara ëllë ca kaw sara mama Tabax ca kaw sara ëllë ca kaw sara mama Habib ca kaw sara ëllë ca kaw sara musinati ca kaw sara ëllë ca kaw sara musinina ca kaw sara ee bu nu sàggal ci ba ee bu nu sàggal nanu fa dem bu nu sàggal ci waawan la bu nu saag dëkku leer la bu nu saag nan ziyaar bu nu saagan yaar bu nu saag nanu fa dem bu nu saag waawan la bu nu saag dëkku leer la bu nu saag ci waawan la bu nu saag waajaangi bu nu saag nan fa dem bu nu saag nana fa dem bu nu saag yàllaay bu nu saagan si fa ay bu nu saagan bakar bu nu saag dëkku leer la bu nu saag nanu fa dem bu nu saag yor bu nu sàggal ay waar bu nu sàgg ci waawoon la mu nu sàgg di ko tàmbalee ci sunu mbokki bopp yi Thank you. كالكلي فيدا يري أفتوى المنى سوري وأيامي خدت خير تاتي لمن بتواتي في عدما بعينا تواصل أخلاقي إلى الله أبدا bila xalwatin wallahu abxakamana hadiyatu rabbi xaadatil ajra warida ilayna kama xatta yabal hum rawal mana waaytu uluman nabatin bilaftikun wali xaada rabbi xayra zaydina lil husna نفى مالكي ما شاء أني قبل رؤية وشرت له عبدا خديما لسلاسنا بدا لي أن لا أنا رب خير وأن رسول الله فاخ الورى حسنا بدا لي أن الله لا رب غيره وأنا رسول الله فاق الورى حسنا mu jóg man liggéeyal Sëriñ Bàmba mi dafa liggéeyal boroomam ba am lii mu am mu man liggéeyal Sëriñ Bàmba mi dafa liggéeyal boroomam ba lii mu am wa inni saakirun lastu zastika wa anni maxa masha anillahu izana allahu ayun samadun wa baaxir subhaana wasul kanaaxir wa waaxir على وين سماد وباخي سبحانه سلكناخي وواخي على عين سماد وباخي سبحانه سلكناخي وواخي ونحن في الكناف المني من كل سر وأسن سني مستمسكين بقياس أحمد خير الأنام منتهى ومبتدا من قال في سمان وباخر أمنه الله من البلاء من قال في سمان وباخر amanahullahu minal balaa'i yal nañu Seex Bamba tibbal te may noo yu doy te am mu doy noo amiina amiinooy amiinooy ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke borom Tuuba barakatan wa rahmatan min lillahi badi xayru min ad-dunya wa ma fi jami barke borom Tuuba jërë ngeen jëf

الله نسعتنا أبعد من نوره نورنا بالعلم donc ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiital si nuyoo bi suñu baay Badu di ci teg imaam di nuyu waa dëkk bi ñëpp ñi fi teew euh, di nuyu gan yi ñu jógee Tiwaawoon egsi euh, di nuyu sëriñ bi di wax ne ñu ngi rafetlu guddi gi Euh, di wax ne chaque année foog naa presque cinq ans ngi nii wala six ans chaque année damay ñëw fekkee euh, ñu ci am kontante bu rëy di teew ci lii di wax nag dañuy jéggalu tey duñu mën a continuer ak yéen ba comme niñ ko doon defee parce que sànq rek laa jóge kër Njànko nekkoon fa presque ay huit laa egsi fii continuer woon am suñu mbokk bu doon jël jabar fële fa lañ nekkoon fa laa jóge rek ñëw fii directement te comme ni ko imaam waxee suba ba su xëy la mais ñun dañu am activité bu particulier bi nga xam ne euh, ñun maire arrondissement bi yëpp dañu war a daje Toubacouta pour euh, réceptionner projet bi nga xam ne président da ko fi def muy jël ndox mi dugal ko ci île donc ñu war fa daje ak euh, suñu naataango ak gouverneur ak préfet yëpp donc loolu moo tax may jéggalu di wax na ñu ngi jéggalu bu baax a baax euh, di ñaan nag comme ni ko imaam waxee euh, yàlla jàppale ñu projet yi nga xam ne président mu ngi koy nas si suñu gox yi te mu tuddee ko PUMA muy programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers yàlla may ñu lépp ñu réaliser ko pour njëriñu askan bi donc euh, imaam sëriñ bi bu ñëwee nga wax ko mu defal ñu ci ñaan loolu moo taxoon sax ma bëggoon xaar ba mu ñëw mais comme yeewu ngeen ma foog naa di ngeen ma jottali loolu CB ñu ngi lay nuyu monsieur le maire Ousmane ñu ngi lay nuyu donc ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp vraiment di jéggalu bu baax a baax a baax a baax baax ñu ngi jéggalu bu baax donc ñu ngi sant ñëpp di wax ne yàlla nañu yàlla may ñu fekkee bii di ñëw deux mille dix huit te ñun ñëpp ñu teewee ko te tal wax di jéggalu bu encore une fois jërëjëf imam waaw bu incha allah yii nga wax ni am nañ yéene bu sëriñ bi ñëwee dinañ ko ko jotal te incha allahu dina ci def ñaan ñun itam dinañ ci def ñaan ndax amuñ lu dul kaarang bu kaarang yokkoo rek ñu yokk bu kaarang yokkoo ñu kontaan bu kaarang yokkoo ñu yëg ne ñun itam ña nga jëm ca kanam yal yàlla jàppale ñëpp kon incha allah ñu jox. Ah, kilifa yi nga xam ni ñoo fi teew am na ci ñun buñ ko tuddee rek ñu mën a yóbbaale ñu ci des ñëpp eh, di nuyu tabaarakallaahu suñu kilifa gii fi bàyyi ko léegi tabaarakallaahu muy Seyid Jogin Gomis moom itam mu ñëw fi teew muy sunu maire wax dëgg yàlla ni ko imaam Keba waxee rek ñoom amuñu jot waaye nag buñ ñëwee teew ba ñu gis leen rek wax dëgg yàlla ñu nangul leen seen ngànt ah, di ki nga xamante ni nag mooy imaam Keba tabaarakallaahu alquran nee na wa yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim ah moom mooy jiite ci diine ji fii ah, tabaarakallaahu yàlla nangul ko li muy jiite. ci barke Serigne Babacar Sy barke Cheikh Alhaaji Malick barke Cheikh Namat Serif ba ci yonent bi sallallahu alayhi ñu nuyu ko ñaanal ko yàlla di nuyu itam ki nga xam ni mooy président fédération daïra Tidiane yi nekk fii ci Ndiomato muy sunu baay alxaaji Cheikh Tidiane Gaye di ko ñaanal yàlla ah, mu gën fee yàgg lool moom it fa tabaarakallaahu ànd ak wér ndax mag la moo xam ne nii ah dafa bokk ci mag ñi ñu dese ñu war leen a sakkanal ñuy mag ñu am pas-pas te sëriñ Abdou Aziz Al mii di xalifa ne na mag ku ko am war nga koo fonk ndax mag nee na wóor la wóor nag ah, defe naa ci dugub lay bàyyi ko ndax boo faraasu dugub mu taw nga bay ko bayaat ko mu màgg ñor nga góob ko jaarale ko ca dàgg ja bojj tabaarakallaahu soq wol sunguf ak sangal jaar ne wóor jaar ne sëñ Abdou nee na ragali bàyyiwu ko fa de waaw moom moom wóor ragali bàyyiwu ko fa mooy mag kon nag suñu bàyyi Cheikh Tidiane yàlla na la fi yàlla yàggal tabaarakallaahu magum pas-pas moog bàyyi alaaji mbay kebe bàyyi Ismaïla dunde ca Fatick sëñ Abdoul Al Amin wax dëgg yàlla ay mag lañu yoo xam ni fii ni nii ci tarixa bi yàlla na yàlla yàggal leen ci suñu kanam ah ñu nuyu itam daa'iratul muhsiniina wal muhsinaati di nuyu sunu bàyyi Bada mbub mi président bi nu ko nuyoo rek ñëpp dugg macha allah moom it yàlla na fi yàgg tànn ak wér tabaarakallaahu li ñu ñaanal bàyyi Cheikh lañ koy ñaanal soxna Faati Kiné Diop ñu ñaanal ko moom itam nuyu ko ci jigéen ñi ah di nuyu ki nga xam ne nii wëllëre imaam la imaam Keba wëllëre. bi ñuy wax Mamour Dramé ànd na ak moom ñu ñëw fa ñu dal tabaarakalla nuyoo ñu ak moom wax taxawaayam ni mu nekkee moom fii ci gox bi moom itam yal na yàlla jàppale leen muy ànd bu am solo macha allah yal na yàlla yàggal leen fi jàpp leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa liggéey bi ñuy liggéey diine jeeg tarixa bi fii am na solo yal na yàlla jàppale leen ci barke mag ñi waaw su ko defee nag mu ngi guddi te sëriñ bi ñëw na mi ci biir ah, te dañoo fanaan gàmm topp rek kii ndekete ñun for nañu bët ba ñu yow rek gis ni ineer jot na waaye ñu ngi jégalu bu baax te dañoo war a bëggalante balaa sëriñ bi génn ànd nañu suñu doom di sunu rak di sunu. Eh, seet muy eh, Ousmane Mbay bu Mansour Mbay bu bay bu bàyyi alxaaji Mbay donde yaakaar naa ni ah bëkk dem rek la fi jóge fii ci Samba Gueye ñu ngi nuyu itam sunu ndijaay tabaarakallaahu di ñuy dalal foofu ci Samba Gueye ah, moom damay daf nuy woo bu ne wax dëgg yàlla di nu nemmee ko di siyaara eh, Ousmane nag moo gàmmu gàmmu ko keroog ndax eh, xate-xate yi tey jii nag ñu ñëw ànd ak moom duudu boole na ak moom mu mel ni ngant moo tax ñëw yi waaye nag la ko yóbbu ca bitim réew depuis gàmmu ndar ba léegi mu ngi foofu tabaarakallaahu yi mu yi ñu fi bàyyi woon xam nga ni koor gaa ngi ñëw programme yooyu nag ñun ñoo fi des ak xale yi tabaarakallaahu di ko taxawee ñu ànd ak Abdoulaye di bàyyi mbay doon tudde sëñ Abdou mi xalifa bi moo nekk nii di magutul kenn tabaarakallaahu kon nag waa kër bàyyi mbay doon na ñëw waa di nuyu sunu sunu rak di sunu mag di sunu jarbaat muy commandant Mbay Moustapha nekk fii ci yéen tabaarakallaahu ah leen ko del lay dénk muy fii dox service moom itam ñu ngi koy jégalu dañoo xaw a teel ñëw ndax dañoo fanaan di gàmm fii ci juróom ah teel ak si moo tax jaar ñu fan comme ni fa jaare woon daaw dañ koy nuyu bu baax di ko siyaare moom njaboot bi di leen yàlla kaaraange ak mucc li bëgg ci tabaarakallahu njaboot gi yal na yàlla defal leen ko ndax loolu mooy seen yitti yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli ko ci réew yi ko wër tabaarakallahu muy Gambie ak Sénégal ah yàlla boo leen defal jàmm su defee nag mi guddi sunu toomaa muy sëñ Mor Jaw ak magam maxtaar moom la ñu dalal tabaarakallaa ci soo ba léegi noppalul ku am activité la macha allah ku am fitne la noppaluwul benn yoon ci lépp lu ñu soxla rek ma nga ca ba léegi nii mu ngi nii ñëw am ak ñun toog ah kon nag yàlla mi am pay daal yàlla na ñu boole pay ndax ah ñun sunu amuñu solo waaye nag. sëriñ Abdou ne nit ku nekk bët ba nga koy xool noonu nga ciy jariñoo waaw te borom portale bële di Cheikh Abdoul Aziz di xalifa bi yàlla dogal na tey moo nekk ci palaasu mag ñi waaw moom nag la sëriñ bay Maasur waxoon ca Ndar rek ku ñuy yónni ngay dem di doxi service ba yàgg nag yow mi ñu doon yónni nga nekk nag tey di yónnee loolu kat wax dëgg yàlla sant yàlla la te loolu ko yàlla defal kon yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér moo tax baat bi foo dem rek ci daayira yi loolu wax waaw baat bi day soog ñëw ci moom rek waaye miin na ko de miin ko lool fa tabaarakallaa na fi yàgg nag ñu ànd ko ak moom yàlla defal ko rek yéeneem ndax benn ma sëñ Abdou moom lu ngeen koy ñaanal lu nekk na ngeen ko tëjee di ko sëñ Babacar si yéene yal na ko yàlla defal mu ni bu amee rek ñun ñëpp suñu affaire baax bi ni ko man mu waxee léegi mat na ñeenti at kon nag yàlla na yàlla defal ko ko rek nu dugg ci biir ñun ñëpp su ko defee xaj Pape Fall nga joxe ñaan ñu commencé gàmm gi tabaarakallaahu ba sëriñ bi ñëw ñu ubbi rek jox Ousmane mu gàmmul daayira bi moxsina moxsinina wal moxsinaati waaw alaaji nee nañ jàng fatiha ñetti salaatul fatihi ñu def ko hadiya ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xalifa bi nag si abdoulaye sis al amin yéen ci gàmm gi yéen ci dëkk bi yéen ci réew mi yépp ci barke seydina muhammad barke cheikh alhaaji malik barke sëñ babacar yal na yàlla faj aaju yépp ci barkeem ci ndigalam هذه درجة المتقوى على حق قدره Amiin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 وجل الله أكبر وسجل سبحان من جلاله تجلى سرين بابا كرني الله أكبر وعسى جلّا سبحان من جلاله تجلى أنا عمني ما لم أطيق بشكره ربي والمنعم لا من فكره أحمد حمدا يبلغ على ridwaan alwaasi aqan amalaay laa siltu fi saati wal awqaati aduwu lil hajaati wal ilaati huwa yujibu abdul miskiina أتى إلي يبتغي تمكينا يعطي ولا من علم أتاه ولا أتى لمن إهباه حكيم يا حي ويا حليم كبير يا صادق يا رحيم قدير يا خبير يا بشير مدل يا عدل ويا نصير خابد يا خافد ربي جامع مقسط والدار رشيد نافعو قهر يا كفار يا معيد منتقم الأفو يا مجيد دليل كل متحير وقف يتوب في فلاته كمن سخر ربي خديت فردي خدا تحكم ما تسافه مكمدا sëriñ Babacar ne yàlla loo atte d'accord naa ci rabbi xadayta faraditu bil xada tahkumu ma tasafahum mukammada hal min munasin fasaka xayree وتؤملكنا في ديري يوم امرؤ ينصر ما قد قدمت يدعو النفس بما قد عملت وكن إلهي تجعل الأصابع للسر عاقسا يميني تابعا محمد خير البرية أتى دينك قد له كل فتى قدمه جميع الأنبياء الوصل في رداك الأتقياء درج ما درج من تباخي له ويرج إلى الأفق أراه رب الأرض ما يرضى ليس من الأنوار ما يشاء لا إله الأنوار ما يخشون ربي رسولك النبي الأمي صل عليه الشافع المرجي sëriñ Babacar ne yonent bi tudd na hudan bashirun wa mubashirun nasir wa tahirun mutahharun badrun munir yaasinu taaha asirun wa aqibu wa muxtafin munjin wa najmun saaqibu ajib lana bijaayi baabikal azim ayni naimi wa siraatil mustaqim لطيف يا محصي فأتمم قردا لنا كسى المراد حيث أردا على المقفي سيد السادات سل وسلم واسع الهبات زمعان ماء الوصل يا رب الفلق فنجه مولاي من سر القلق يدعوك من يرتب الحروف من صلاة فاتح دعاؤك من معتمدا بعونك الكريم وتم قصده بذا المنسوم صل على سيدي في المعراج سلم على سيسر والمنهاج وآله وصحبه المنتظر الراكعين الساجدين المهتدين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام الله يا أكرم الكرام يا أرأم الرحام يا ألطف اللطف يا برد أحراري يا أكرم الكرام يا أرحم الرحام يا ألطف اللطف كو يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطافة يا برد كرام الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطافة يا برد محمود معلمنا يا كاسي والأسوى وأدراري مفيدا أبهر أنوار وأسرار يا أكرم الكرم يا أرحم الجلال يا ألطف اللطفا يا ما موضع مع النبي الاختياري كما قد شاء جل إلى أهبة كانوا أخيارا وأهبا يا أكرم الكرامة يا أرحم الرحمة يا ألطف اللطفاء يا بما ودمال من لا يقيد أبدا جاء يسأله يا مانعا عن سؤال سار أكرم الكرامة يا أرحم الرحمن الله يا ربنا غفار صلاتنا يهديا صدلال حائرا أكرم الكرامة يا بلاه سوى الذي كل يوم سأنه جاهل وأكرم الكرم ما يا أرحم الرؤماء يا ألتف اللطفاء يا برد مولى مالنا والداع يا ربي أدناني وأدنافني أجل إقاساتنا يا خالق البير يا أكرم الكرم يا أرحم يا ألطف اللطفاء يا من مولى مالي إني وإن كنت أثوابي مدنسة بماء أفريقا أرجو قصلا أقفال لقتك إني أرجو بين بقي سورة نانا إني أرجو بين بقي تباخ نانا إني أرجو بين بقي تباخ مالك إني أرجو بايو سيدي جميل إني أرجو بل بايو سورة نانا إني أرجو بل بايو شيخ تجانسي إني أرجو بل بايو عبد العزيز إني أرجو بل بايو خليفة بيني إني أرجو بل وموتا كرما بطريقتنا لأمة الأمل أمها وهو زين مام هو أجمل من سقى قلبنا نهي أسلوب rutabin rutabin he oslobon bay rutabin rutabin he Si nee na he bay rutabin rutabin he oslobon bay rutabin rutabin waliman dakalo bay waa kaarang ci seex waliman dakalo مسنين جزاق ولمن دخلهم بين سقل خليفة نينا أسلوب بين رتب رتب ولمن دخلوا طريق بانجنون ولمن دخلوا سقل خليفة نينا هي أسلوب بين رتب رتب ولمن دخلوا بين waa Kaarang ci seex wali man daxaloo mbay Seexal Xalifa aani sayxan mbay Babakar Si nee na aani sayxan mbay wasaran wasaran aani sayxan talube seex loxo ca kaw aani say xan wësërënu wësërënu wa saxaabatuhu Babakar Si neena wa saxaabatuhu wa saxaabatuhu aqan wësëlu رفل سقى القلبني عني شيخا ختما وورا ستو سبق سلمان أقلو موم هو سيد وهو أجمل من سقى القلب نياس البيت ما بني لتوا فيه قبب سعي رمل وهو جميل وهو أجمل بابا كرسي لنا حق يأوي كنفا وحوائج ذات جمل وهو موم هو أجمل ما وبكينا أجل أجل أتمم خردا لعبيدك لا رد الأمن محمدنا هو سيدنا موم أوين الموم يالنا يالنا نغنياني سلا ربي أزكى صلوات الهدي فيها الأزل محمدنا وزين وين المن بابا كرزنين ثم العالي صاحب الكرماء وهم العلماء كلهم فتلوا أحمدنا هو سيدنا هو أجمل من ترنو saaba yaa ngi noonu kullum ba taloo ni saaba yaa Umar kullum ba وسمانك علي كل بطلا شيخ الخليفة نانا كل بطلا سبي نان لغتك كل بطلا جمبار يانجي نون كل بطلا ñoo ñoo xal yoon wi kullum batala xare badar daan ñooñu xare badar daan xare xandax badar daan xare yaa ngi noonu xoola badar weeru koor la woon gisal badar weeru koor la woon xoolal badar weeru koor la woon kaarang badar weeru koor la xare boobe aka metti lool waaye teewul jullit yaa fa xoola badar weeru koor la woon waaye teewul jullit yaa fa badar weeru koor la woon xare boobe aka metti waaye teewul jullit yaa fa badar yeeɓe ñoo fa daan jambar yaa ngi noonu kullum batalo Babacar Si nee na kullum batalaaloo Seexal Xalifa nee kullum batalaaloo Abubakar Umar kullum batalaaloo Usmaan ak Ali kullum batalaaloo Jàmbaar yaa ngi noonu kullum batalaaloo Jàmbaar yaa ngi noonu kullum batalaaloo هم العلماء كلهم بطلوا كلهم بطلوا يوم كلهم بطلوا وهم العلماء كلهم باين باين بكر درما أرملو maamu kumba caam faa waddu wele ma ca gaaya mbay neena ba toloo waaw kullum ba ñoom woo mboolo ulamaa kullum bay bay ne bakare ye daraman aram lo maam Kumba Caam faa waddu ma ca ba toroon ba toroon kullu أنا صبيا وبرة بنت عوف أم أمي حبيب لا تزل دائما في بصي ولهي سلام ربنا دائما نعم حفلني تيانا وفي قسين لقاء المصطفى مع برة وأمي حبيبين باتفاق على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما أنا صبينا وبرة بنت عوف واللقاء على كعب وخر ولا تودي لخاطه أجمعين سلام ربنا دائما سانغال باجي دون ترى في كل تقديراتي نسبا شريعة فعل قريشي من خلال على صلاة ربنا دائما آمن أما سبيد لله دار الذي قد قال ما يوجزهم الله خيرا خير منه بدر فالقرب خير أناس ثم خير وقريش وهو فيهم خير خير نبي يا نجم بخير صفي يا نتبي خجك فالقرب خير أناس ثم خير روى قريش وهو فيهم خير خير أولنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا yéenay génn gi xeer fal xurba xay ruudaasin summa xay ruuba xuraysum وهو فيهم خير خير نبي soppey den fal qurba xay rodasin summa xay roma quraysum wa huwa fihim xayru xayri bëgg yonent bi ay loxo salaama dayman aman singil loxo صبرت بنت عوف أمها فأميمة خيار عواب اختيار على نبي وعلي وعلي صلاة إيمان سجل خيتك ودابة أم وعاق الأم دابة لفضاء أربع من غير فيه على نبي وآله يا سبيا أنت بناني لخو دايما سنجل خيتك من بعد ما قد خلا وون يخام أنت خمت بدرا زيد الأمم نبي وعلى سلام أيمانا من لخيتك من بعد ما خد خلا ووني خال لعاءات خود ملت بدرا سيدا همما إذا ودا تزامعي معمدنا أمرت بي أي كتماد فتح تدبي خلعي زلع من ساردي حسدي بالواخد سمد الموصوف بالخدم وكل ما لقريش دبخت نتخات بخمل خير لعباد الله كل لعبي فاقدرت الأرض والأشجار قد خملت فسميت عام عام الفتح والرفمان وللنساء عظيم الرحمن خلق لذكر ذلك ama ikraman li muhtaribi jabal huda summa ba'wan walba adaban xamlun bi xayril waral muhtaratil xadabi innal bashira ma zala tubash شرعا خبت أنا رنواقي شامل تعبي قلوب وقلوب المسترقة رنا يا سعد متبيز عمين نريد خيتك يا رب صل على المحمود فينا وقبل شفاعته فينا ربنا رأيت كوس بن عوف وصد الصابية رأيت كوثاب رأيت كوثاب خليك رنجي خليك رنجي a yi ca bëgg Mamadou soppe sëñ Babacar Si bëgg Mamadou dañuy ana ñi bëgg Mamad ana ñi bëgg guna bi jaral guna bi jaral nabi sayyiduna bi jaral guna bi bi jaral nabi sayyiduna bi jaral وكرم يا آيتي وكرم يا آيتي مفسدين آيتي مفسدين آيتي مفسدين آيت مفسدين مفسدين آيتي مفسدنا آيتين مفسدنا آيتين ومفسدنا آيتين كنا بجرال كنا بجرال كنا بجرال كنا بجرال أي كنا بجرال النبي سيدنا محمد كنا بجرال jug leen nu màggal Mamadou jug leen nu màggal Mamadou jug leen nu màggal jug leen nu màggal Mamadou jug leen nu màggal waaw tant bi xanaa kenn soog fi yonent bi jug leen nu màgg yonent bi ñëpp toog ku jug taxaw yàlla na gis ak Seydina Muhammad jug leen nu màggal leen nu màggal Mamadou jug leen nu màggal jug leen leen nu màggal Mamadou jug leen nu màggal Mamadou jug leen nu màggal jug jug leen nu màggal jug leen nu màggal mam jug leen nu màggal ku nabi jaral nabi Seydina Muhammad ku nabi jaral nabi jaral nabi jaral nabi jaral Muhammad ibn wante ebon gardinde ebon wante ebon gardinde ebon wante ebon gardinde ebon شيء بالأرض أمة إبراهيم بالأرض أمة إبراهيم ko Yeah. Thank you. جولي جولي يا محمد هم بتعب هم بتعب

المتعب عبد الله المتعب عبد الله المتعب عباس دبا دبا فدد فدد نفير الجلاس جدا نيح نيح نسكر كمان دبا أمتي gumbatta'en rebbuna'en huduggere hoggo nofo goɗa jirgo nande rewne musinkoore koɗa gumbatta'en rebbinna gumbatta'en rebbinni jerneyen gumbatta'en gumbatta'en rebbinna en متعب زور برام دارد متعب ذرهم متعب ذرهم شيخ تجان يا غدا بدي يا غدا بدي تجان kanam sëñ Daara waaw kanam sëñ Daara waaw sëñ Daara al amin ko sax yaa bu te amin yaa bu te amin yaa bu te amin

Shema.

تقبل شفاعته وفينا ولا ظلمنا اللهم وعلى الأدب خيتك سلم على زيد قوسة شفاعة حزن الكباه كي ينجو عزم وليلى للعبدة حزبتان إذا لم يكن نحو الخرج قلبي لي ca Medina wa ana allazi lawlaahu da asabilu wa ana allazi fallaahu yuxti lana almuna falawlaahu xaqan laa yakunu fatilu wa ana allazi qutbun azizun mutahharun رؤوف رحيم صافئ ووصول وعد الذي در يتيم وجوعر جسيم وإبرز الزعوب الثقيل وعن الذي در يتيم وجوعر sang bee ca madina jasimun wa ibrisu zuhubi saqim ku sopp sayduna muhammad defal nii sa ñaari loxo wa ana alladi qutbun azizun متهر رؤوف رحيم صافئ ووصول وعن الذي نور الوجود متلسم بي في الحجاب الجسم فهو وكيل ما مولانا سباتي عن بدر دجل كفر قتل نفا كمن تعفتين وقام يجور نعم fa duniyaakum haakum izaa aqnil qadaaw an zihri min daaril xabiibi xaliil an zawri min daaril xabiibi xaliil naam wa haaza istifaahan an habla nash'ati aadamin ومن لو أعلق الأنام يزيل نروم صنع المصطفى بعدما أتاه صنع من الهادي عليه جميل ليس فما زال منقولا من أسلاب التوهرين إلى الطيبة الرحم نعمة أصول ليس وقت السيد الحاج مالك نينا yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def leen ni ñu màggal borom tànt bi danaan tàmm takkoo xiif bay jël ay doj di ko def ci biiram di ko takk ci biiram pour mën a am équilibre pour mën a jaamu suñu borom. boo demee ca xilaasu zahab moom la fay nettali ca bunt ma nga xam ni na yeneen bi jikkoo yëpp maam Maodo indil nañu ko fa mu jël ci benn daan ni mulazimul juuxe bil ahjaari muntasiran lakin zalika ma qad kaana min yatami dani mulaasimul joox yi daan na taqoo xiif muntasiran daan wettali ko bil jaari ci ay doj di ko takk ci biiram pour mën a am pour mën a jaamu suñu boroom nga ñëw ci laamiya bi moom lay wax yusalli nabillahi lil juu'i haayidan yuallimu anna daara sawfa tazulu mu woote wooteem bu réyam ba daan ni waa kaarang yéen waa kër sàmba Gueye ak li ko wër yépp rekk ñëw leen ngeen àndandoom ñëw fekk ma tuyaan ñu màggal juddu yenent bi sallallahu leen ñu màggal juddug yenent bi laylal wilaadati xisbatan ngir lan sàkku tiyaaba waaye nag isaalam yokku ndax wal xaraam mi uduunu su ngeen naree ñoo def lu xaraam Maodo nee na toog leen woowuma leen waaw kuy def lu xaraam ne moo de woo woowuma la toogal jaratul ngay ñëw kon may ñaan bayit bi balaa ma ko tudd rek ci tànt bi góor ak jigéen mag ak ndaw fu nekk ku nekk fa nga toog rek nga jug taxaw ñu màgg juddu yonent bi ala azimu layla wiladati xisbata إذا لم يكن له خرج ليس rasulillahi makkañ gàmmu ngi bëgg ndax borom gàmmu gi Serigne Babacar Sy ku ko sopp leen ndeysaan Serigne Mamour Jàmb si suñu wayjur suñu xarit suñu sëriñ ak sëñ Ahmad léegi nuyu bu baax di la ziar eh, jotaay bi kontaan ci torop tey sama ñaari sëriñ ñoo ñëw ma kontaan ci lool ndeysaan sa góor ga alxaaji mbay donde ne dama ànd ak Baye Ndiasse ñu toog ci benn garab Moustapha sa way juru alxaaji mbay donde ñu toog ci benn garab garab bu alom yaa ngi verte rafet lool Baye mbay nee na may xool garab gi mu taaru lool ne ma naan bàyyi njaase garab gi nii mu rafetee nii mu taaroo lool benn jëmm rek laa ko bëgg a tudde bàyyi njaase ni ko mooy kan mu ni ko mooy sama góor ga waay Serigne Babacar Sy laa tudde garab gi vert ba mu vert nag comme seen vert yi nii mu vertee te rafet rek noonu la vertee te rafet asalaamaaleykum wa rahmatullah ci sëñ Babacar nga bëgg a dugg ba léegi nag bala ngaa dugg dama bëgg ñu yëlëb poos yi ñëw jox ko ko kuy bëgg sa aajo fajo rek nag laa bëgg nag nga wax ñëwal yëlëb li ci sa poos ñëw jox ko sëtu sëñ Babacar bii taxaw góor ak jigéen fu ñu mës a wootee nag jigéen ñee man waaye tey yaakaar naa góor nañ góor góorgóorlu ci seexal xalifa ku ci bëgg jëkkër na ñëw léegi ku ci bëgg liggéey na ñëw léegi ku ci bëgg tukki na ñëw léegi ku ci bëgg dem màkka na ñëw léegi ñëw leen fekk ma fii ci sëñ Babacar si ñëw leen gaaw ñëw leen fekk ma fii ci sëñ Babacar si ah, taaw bu góor yàlla na la ko yàlla defal ku ci bëgg taaw bu jigéen yàlla sëñ Babacar si yàlla na ko yàlla defal ku ci bëgg kër ñëwal ñëw leen kër la bëgg ñëw leen sëñ Babacar a ngoog àttana soxla yëpp ñëw leen jox ko gaaw waaw ñëw leen jox sëñ Babacar si ñëw leen ñëw leen ngeen jox Cheikh al Khalifa radiyallahu taala ñii kat sëñ kër dong lañ am ñëw leen na ngeen xool sëñ Babacar nee woon nag ku ma xool ku ma woo ci photo bu ma rusul woon Seydi Hadji ku ma woo ci photo ma wuyu la moo tax photo yii jënd leen ko ngeen yóbbu ko ci seen biir néeg yi Alaaji Mbay doon dafa mos a wax ni dañ ko dalal ci benn néeg néeg bi ci ginnaaw armoire bi photo sëñ Babacar mu ngi fa surux nee na mu tëdd di noppalu rek gis sëñ Babacar sëñ Babacar ni ko man fi ma dugal dafa xat waa nee na fii la ci Passy sëñ Babacar ni ko man fiñ ma dugal dafa xat kër soxna may mun a ndaw alañ ba doon ne ma yeewu tiit jóg di xalaat gént ba yàgg ma ne naa wéri fii jóg xool ginnaaw armoire ba rek fekk fa foto sëñ Babacar si ma génne photo bi ma ne sëñ Babacar lii lay wax moo tax fanaanoog photoom dafa wóoru billaahi ku ko fanaanoo danga am sécurité kon photoom yaa ngi nii di jaay jël leen ko ñëw leen rek ci addi sëñ Babacar ci taabal ji lu ci waay joxe rek incha allahu nga yéene ci sa soxla ci barke sëñ boobu kër si aja continuer ñëw leen ñëw leen waaw mu ngoog ñëw leen ñëw leen gaaw ñëw leen gaaw ñëw leen gaaw barke sëñ boobu kër si barke sëñ boobu kër si lu waay bëgg rek nañoo yéene ko ci barke sëñ ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen yal na yàlla faj aaj yëpp ci barkeel nit yi. amiin bi yal na yàlla guddal sa fan. ci barkeelante bi yàlla may la. ba mission sa kër maam Seydil Hadji Malick bi nga yeggale ko jàmm. ci barkeelante bi. mana li ma ci yéene mooy sëñ Abdou yàlla yokkal ko fan bi ba mu. lool lool lool tey li may joxe fii tey. li ma ci yéene mooy sëñ Abdoulaye Sall amin yàlla yokkal ko fanam bi yokkal ko wéram gi ba mu yàgg a jiite xadara bi ci zaahir ak ci baat ñu yàgg topp ci ginnaaw bay bay naam alhamdulillahi makkañ garab gi a jijje ci njañ naam garab la xéewalu yàlla ku ci doo xiif te doo mar abadan garab gi rëy na te baax ku mus keram ni alfilaax ku yàlla may njani ca faax doo xemme maat kiruk fuddan bay may naan doon doo garab gi moo di kan mooy Seydi Mbaye moom mi man foppi bi def mu bon mu indi ko ci yoonu baax ba tax mu jur da daan wax ni man Mbaye Donde bu ma nekkee sama kër Mbaye Donde laay tudd Mbaye Donde rek laay tudd waaye bu oto bi gaaree ma woo Baye Mor ñoom woo Baye Pafal ñu dugg bu ma ji bu ma génnee sama buntu kër ne dugg ci oto bi doonatuma mbay doon dom mbay doon dom Serigne Babacar la service am rek lay dox ba ma bu ma jëlee oto ba nag ba ci Tiwaawan ñëw Kaarang war leen a su ma nee cëpp ñu dalal ma fa ma dalal ba sama génn jot bu ma génnee bu ma joxee micro ba ma jekki-jekki jàkkaarloog waa Kaarang nan leen ki fi yëf jë ami sañ-sañ yëngu ak i dogal ami sañ sañ ci dee yëngul bootu mooy abale ak i dogal ami sañ sañ ci diine tey yëngul bootu mooy مرمي كانت قالوا تمدم مرمي كانت قالوا تمدم باي ما تبرزاق تعيوا حكوا كارا دند مودا دند شيخ قدم أكيد أنا سنتين تدي ana bokki waa Kaaràngi mu saggan ana waay jigéen ñi waa Kaaràngi mu saggan ana waay jigéen ñi waa Kaaràngi mu saggan ana soppey Sëñ Babacar yi ana waay daayira Muxsinina ana waay waa Muxsinina ana soppay Maam Mor Jàmm Si bu nu sàggan ana soppay sëñ Mor Jàmm Si bu nu sàggan ana soppay sëñ Mor Jàmm Si bu nu sàggan ana soppay sëñ Mor Jàmm Si bu nu sàggan ana soppay sëñ Mor Jàmm Si ana soppeeku sëñ Mor jàmm si mbaykat yi saggan ñu dem mbaykat yi saggan mbaykat yi saggan mbaykat yi saggan mbaykat yi saggan mbaykat yi saggan suñu ci saggan suñu gàmm gi ne ku ci saggan guddi yonent bi saggan suñu gàmm gi ne saggan suñu gàmm gi ne ku ci sàggan guddi yonent bi ku ci sàggan suñu gàmm gi ne ku ci sàggan guddi yonent bi ku ci sàggan suñu gàmm gi ne ku ci sàggan guddi yonent bi ku ci sàggan guddi yonent bi ku ci sàggan jug leen nu màggal jug leen nu màggal jug leen nu màggal jug leen nu màggal jug leen nu màggal jug leen nu màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal sexul xalifa moo jara màggal mbay bu na jàqe mbay bu na tiite mbay ba ko woowee mbay bu na jàqe mbay bu na tiite mbay ba ko woowee mbay bu na jàqe mbay bu na tiite mbay ba ko woowee mbay bu na jàqe mu jàll mbay bu na tiite mbay ba ko woowee مسيرة مجال علميك مسيرة مجال علميك مسيرة مجال انك يا كوثر كوثر انك يا كوثر انك يا كوثر كوثر امام بناني وجيب بناني bunane bunane bay mala la kon ken ni deg bunane to ko bay ma la laqoon ba bari yàlla am tuuti bay ma la laqoon kenn yi déggul naan la dëddalu bay ma la laqoon ba bari yàlla am tuuti kon bu ñu sàggan ci baal bu ñu sàggan ey bu ñu sàggan bu ñu sàggan ey bu ñu sàggan bu ñu sàggan ey bu ñu sàggan bu ñu sàggan ay bu ñu sàggan bu bu ñu sàggan bu bu ñu sàggan bu bu ñu sàggan ko def Soora Dem Ba ku ko def Cheikh Tidiane Ba nitu yàlla ak sëriñ nitu yàlla ak sëriñ rëy kaala bari xam-xam taxul a mel ni sëñ bi sëñ Babacar loxoy ca kaw sunu maam mbay si jar na ko ku sopp sëñ Babacar jógal taxaw ku jóg taxaw yamal qiyaam doo fa taxaw ku sopp sëñ Babacar loxoy ca kaw yamal qiyaam doo fa taxaw ku sopp maam Mor jàmm loxo ca kaw sunu sëriñ jaral na ma ku ci sopp sëriñ moor loxo ca kaw moor jàmm si sunub sëriñ jaral na ku ci sopp sëriñ moor loxo ca kaw moor jàmm si sunub sëriñ jaral na ku ci sopp sëriñ Babacar loxoy ca kaw ku def ni yamal xiyam doo fa taxaw bu ñu sàggal bu ñu sàggal bu jiitoo gidaak nan rabbum tabaaraka fii duñu sàggan duñu sàggan àndandoo bi àndandoo bi àndandoo bi àndandoo bi takkaloo bi yàlla yàlla xoolal fu ñu Seydi Mbaye ci gaar yàlla yàlla doon na soo bi ñaanal yàlla dëkk fay sukuraal leen jibbo bàyyi leen leen jibbo bàyyi leen leen jibbo bul xuloo xaji fi yéen gise ci waxtaan ñoo fi ne ay daje ay ko joxonte leen joxonte leen joxonte leen joxonte leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen yëkkati leen

يوم الثلاثاء بزوري ويك سب سيد الحاج مالي سنعري لخرج مكرم الله الله وقد باق قر الشمس نحو التبرد yéen Serigne Aline Gueye yéen ko soog Serigne Aline Gueye defal nii mu ni Seydi Alxaaji Malick ci biir suuf ku sasaxali ma ko ci daa bind te bindoo ci loolu sa bind sànku na ودان كأتلالا ببرحة السمدي لخولة مختو صفيعة بكيث مدي ne waxuma Layla waxuma Raba ndax taxul maa jóg damay xësal rek waxuma Hind bàyyil ma Salma ak Mahdati Seyd El Hadji sa sëriñ sa maam daal di xësal ca nuuni yeba daan ne way xakki di بذكر الباني تختال الغيوم سيرين بابكر سي موميت دادي غزل تي نوني يامبا تي هل من سبيل با تي شيخ التجاني دان شيخ hel min sabilin ana bi la ilaa salma bu jëm ca salma bi yebbirin ca dëkk bu ñuy wax yebbirin taw xutti xaali sama soppiku laxas ilayha jëm ca salma kaana nekk na yebbirin dama yett man Serigne Babacar Sy ne muazzabul qalbi ku ñuy mbëggal ci xolam laa millu si sababati ngir lakkuk cofeel bal li fi nekk naarul bihaadi safara bu sori ba takk wi ni dana ma ñaas alal ak saa yi samay wet nekk anna sabqiya mu mel ni ki sama jëmm malkuutul mafaayisul nii faree ci àll bu sori aw xatsaar wala mujj sax mun a adi man di aji ñàkk min bëx di takk wi ni gannaaw sama kam man sëriñ baaba gis te sopp sëriñ Babacar Sy defal nii moo tax mu ni wan xub sama cofeel ci yow kam yusul aqla salima bari na bu mu yóbboo xel mu mucc kama bintu sama nii na comme ni ko alxuraan waxe sàngara waaye bal li fi nekk axla moo gën a neex wa yes fii saafara man sëriñ Babacar Sy ngir sopp ku waxuma layla waxuma fartada waxuma hind bàyyil ma salma ak mahjat ku def ndi yàlla nañ gis ak seen alxaaji mbaali wama xallay laaya warraba bi wa fartanan وما خون عندينا بل السلم ومحدد وضع ذكر أيام السبا وليالها وضع أنك تسكر معاني لغرتي ولكن تفكر كيف نجعت سيدي لدى روضي والقد شال أنددي ولكن تفكر كيف نجعت جيبزن حبيبين خليل الكل برين ومرشدا kuy bind bindal ci Seydi El Hadji Malick mi nga xam ni bind yu étoile polaire di dindee mol bi ci biir géej ba mu teeree di tefes incha allah lay gindee waa Kaarang ak li ko wër ba ñu teeree ji àll janna leen amin ni weeru Badar di leeralee guddi noonu la leeralee diine moo tax xam-xamu Seydou El Hadj Malick gàññi la àdduna ñooy xam ba nee na gàññi ba pare leer ndaan ku jëriñu am xam-xam kooku mooy Seydou El Hadj Malick. walakin tafakkar kayfa dija'at waarisin abal faydi xutba awiya محمد ولكن تفكر كيف رجعت مختفى بسنة هادي النبي محمد nee na sutti awan fees dell ci gàttal magasin yi tëj cantine yi tëj moo doon gëm ne Seex Seydi El Hadji Malick dem nga barzaq ñay jooy a ngay jooy ñay jàng alxuraan a ngay jàng alxuraan tuyaawal gëndal maa ngi daane comme dibéer yi da baax Malick ak bisu Sëriñ Mansour si borom daara ja ak àllarba Serigne Cheikh Tidiane si guddeem googu nga xam ne dafa tombe guddik Seydulaa Muhammad ga fil xawli la shihri an na def na laylata arbia fi wax takki bi moom Serigne Cheikh bu yàggul rek lañ ma ko tàggee fii ci kër Samba Gueye may woy ba heure bii suñu suñ ku ñuy wax Baye Mor Diagne tàggee ma ko ma def ca ab woy waaye woy waxaju fi ba beneen yoon rek waaw Sëriñ Cheikh Tidiane si al maktoum yàlla yor yàlla baax moo tax foo sànni daal mbàtt rek mu tàcc ñay jooy a ngay jooy ñay jàng alxuraan a ngay jàng alxuraan tuyaawoon dundaloo comme dibéeri da baax wa kaana tisaalu zakirin tisaalum بكاء لدى كل التاريخ ومقعد فحست فجاج الارض لم تر فرجة تقول على يدينا سبيل لورد وغلقت الابواب دون تجارة وقد أرجف الأقوام من غيب السيد وأتعشت الألباب كادت تصدأت صدور عالية بكل التنود nee na suñu romb ñetti njaq bee ñu def ca ndoxum gooyee bee ñu def ca ndoxum déem bee ñu bàyyi ko noonu ñu ni ñu ngi samaam Seyid Alhaaji Maali leen kii ngeen bëgg a tuur ñetti njaq moo gën a fees géej géej mënta paase tooyal tefes te Maodo li ci dënnam bi baaw na ba jël océan atlantique tooyal amérique baaw na ba jël méditerranée tooyal europe baaw na ba jël mer rouge tooyal arabi kon Seydi El mi gën fiis gën bu ko ñetti njaq dee sang matière a tax ñu teg Maodo ci jaag ji Serigne Aline Gueye ma xuloog ma jàpp ca bant bay jooy naan ko mu ngi ci dënnu Seydi El Hadji Malick bi lu montagne be mu gën koo dis ndax xam-xam baa tax ndax mooy min zikri cheikhin moom la aalimin la mutawarraxin la xaadal alaama ilal huda bi xinaani moom Maodo waaw la Cheikh Sadul Abi mu dar moom la Cheikh Sadul Abi madaarisu fi lilmi xayru madaarisin wa awraadu fi zikri ma mislu wirtu sëñ Haadi Touré wax ko moom it ci biir daan ni ko wanaalikal madadu saari ila nujaba min attalamis min indi ibni usmaana dem ba ci biir naan ko mudarrisan kulla ilmin kaana mundarisan bayna almadarisi bii daanan wa suudaana moom Maodo moo tax xam-xam ba rek tax kon bu la damul yóbbante bi ay yàpp ak a tax ñu jël ko yóbbu ca jëkka ca jàkka ja teg ko fa Seyd El Hadji Malick ndeysaan Serigne Babacar ànd ak ay rakkam Cheikh El Hadji Bal Xalmi borom Kaalaga Cheikh El Hadji Habib rakkam ak Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabbaax borom 40 ans Serigne ni Maam Mor Khoudia Sy sa maam Ousmane la la jur mook Ousmane mi jur Maodo ñoo bokk ndeeg baay kon julleel Maodo nee ñu jullee Seyd Alxaaji Malick Sëriñ Alioune Guèye nee na ma dem dem mënatumaa dem ma xool alaaji Mansour daal di bàyyi Cheikh Alxaaji Mansour lan waa kaarantey waay waa muxlisin ma ko xamu ko de fa waa ajabana من أحسن الدر قذ التوى طريق أبي المرسول مغياس مكمدي تغيب عنا عبك وفينا تفجعون ترى سدمت في يتيم زبرجد سليمان أمر موسوي بنجدة كي تد خليل يدين مولم يتد سني لمحمد ku bëgg Maodo defal nii waaye xam naa fii lay daanelee kàddu gi dama bëgg bayit bi may wax képp ku ko waxi fu Seydil Xaaji Maalik nekk yàlla na nga fa góor ñi ma jàkkaar lool dama bëgg ngeen wax ko ba sa mammoor jàmm si dégg ko ba kontaan Tiwaawan dégg ko ñëpp dégg ko kontaan Seydil Xaaji Maalik ëllëg fa mu nekk ngeen nekk fa ànd ak moom ca Seydina Muhammad na ko góor ñëpp wax ca kaw jigéen ñi wax ko ci suuf ku ko wax ca kaw yàlla nañ gis ak Maodo baat bi nag yomb na xam ngeen mooy lan mooy wëlliin ولي ولي dégguma leen wax leen baat bi ca kaw waliin yéen waa Kaarang yéen a tàntal Maodo waliin xam ngeen ni Seydi El Hadji Malick amul morom waliin yéen waa Kaarang Maodo moo nëbbu boppam waliin waaye teewul bur yàlla feeñal Maodo waliin ku bëgg Maodo sa ñaari loxo waliin ana soppay maam Maodo def leen ni ku sopp maami maam Mor jàmm si sa loxoy càkka waliin Maodo moo nëbbu boppam waliin waaye teewul bur yàlla feeñal Maodo waliin kooku moom la Serigne Babacar naan ma dixru jaada bi malikin wa ka maliki ka dixri marra bi malikin lil maliki yaa man yuridu zariatan li janabii shammir wala tasna bi sun in haatiki yaa man yarumu بقخر بحر واسع هلا عرقت بسابق وبسابق لله در الكخف يا در الولي در الخمول من البرايا ناسك سمت جميل نقتوى سمت بدا يبدل غوامد جملة في التارك شيخ تقي لا بريبة على استقامة بالإله المعاني عين بالشريعة والحقيقة إنه يهدي المريد لخالص الأديان سابل مقام وعمدة العلماء بل تاج العلا وكما اختل الخمران هو ذل فضل وافر لمزلل لم يخشى سالك عامل القيران كبك مام مودو جوغل تاخو ولين ولين ولي ولي ولي منال الدين أعلى ورفعة إنارة عمة عموم محمد كن ومعلم بعد التاج يربي مريدا بلا قلوة بل همتي مثل أحمد ومن لي بإخراج حقائق ناسعا ومن لي بتدرس كتاب ومسندد ومن لي ببدر الفقه والنحو منطق بياد المانع بدي بمشيد ومن لي بورس بال جنيدي ولا شرى وملي بآداب ودب مؤدد وملي بنجم في النجم ووصل نلقو سيد العاج مالك يا مسعود وصالت سيد العاج مالك يا مسعود عرادا سيد العاج مالك يا مصن ربط البدر مقودة ومن لي kon maa ngi ñaan ku nekk ak dendal jot wala mu ko baal maak baal naa la yàlla na yàlla wala baal ñu ngi jéggal bu baax ñu ngi jéggal bu baax a baax yàlla na yàlla jéggal ak service xasal yi yàlla na yàlla yokk garaatam Babacar Fall mu ne noonu la fi nekkoon ba retraité yàlla na yàlla taxawu leen yàlla na yokk seen maqaama sëñ Mor nee na sama gàmm bu jotee gàmmu Banjul yëpp mooy taxawu gaa yi di leen jàppale yàlla na ko yàlla jàppale والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن تاج العارفين برزخ المختوم ورضي الله an taajil aarifin mumiddil awliyaai barzaxil maxtuum cheikhina ahmad tijaani sharif alfatimi wa an jamii xulafaai muqaddami wa baadu ixwatu fillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi guddik sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam may ñaan ñun ñëpp ñu jàng fatiha salaatul faatixi ñetti qul huwa allahu ñetti qul huwa allahu teg ci salaatul faatixi yéene ko suñu xalifa bi nga xam ne ah, moo jiitu ah, ñu yaan ñaan yàlla yàlla yokk leeram yàlla na ah, dëgg-dëgg yàlla yëgal ko ca maqaama yi yëg na kowe ci aljana ya gën a kawe ñun itam yàlla taas ñu ci ay barkeem ñu jàng fatiha salaatul fatiha ñetti qul huwa allahu ahad bismillah arrahmaan yal na yàlla jotal ko yool bi yal na yàlla yokk ay leeral a ah, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ginnaaw bu nuyoo mbooloo mi ñëpp di la jiital ci nuyoo bi di la jox nuyu waa Karang nuyu fédération dawaayir yi nga xam ne ñoo nekk ci ñombaato gi nuyu daayatul muhsinina wal muhsinaat bi nga xam ne moo nekk ci Karang te suñu baay baay badara alaaji badru moom jiite ko ak euh, sayida faatimatu Diop ñoom ñaar ñu jiite ko ñu ngi lay nuyu ci tuuru daayira boobu euh, di la ndokkeel ci gàmmu gi nga xam ne yaa ko tànnal sa bopp ne sa gàmmu la ne fu mu jotee rek nañ la ko yëgal foo mënte nekk incha allahu di nga teew te ba nga ko waxee ba léegi yaa ngi koy doxale noonu ñu ngi lay jotal suñu nuyoo nag nga jotal ñu ko ca xadara ba xadara Seydi Xaaji Malick ca ka gën a suufe ba ca ka gën a ñu ngi la koy jotal ci nga jotalal ñu suñu nuyoo ak suñu ziyaar waaw ak suñu feddali eh, suñu feddali eh, suñu eh, feddali li nga xam ne moom lañ séq ak xadara boobu yàlla na nga jotalal ñu ko ca sëriñ ba ah ñu ngi nuyu bu loolu paasee sëriñ bi ñu ngi lay wax rek ne mbir mi boo ko gisee am na nu mu doxee ba mu mel nii te itam nag dañuy wax ni nit ñi ku la defal dara nga sant ko gërëm ko ñu ngi ñëw rekk di sant ñi nga xam ne ñooñu jàppale ci mbir mi ba mu taxaw muy dëgg-dëgg ñu ngi ciy jiital ki nga xam ne mooy meeru dëkk bi foofu la toogoon fi lañ ko fekk ah, wax dëgg yàlla mu toog fi toog fi ah, ba ñuy ñëw te suba liggéey la ma ne ko nañ la yeewi mu jël fi kàddu yóbbante la nuyoo sàkku ci yow ñaan nee na nga ñaanal ko ñaanal ko ci dëkk bi ndax naal yi nga xam ne naalal na ko ci dëkk bi yàlla mottalil ko ko ñun itam loolu ñu ngi la koy ñaan ndax ñun itam amuñ fenn furul dëkk bi kon nga ñaanal ko ñaanal ñu ndax dëkk bi lépp luñ fi rëdd ci ay projet rek yàlla nañ ko mottali ñun ñëpp yàlla may ko wér moom itam sàmm ko aar ko ñu koy jàppaleeg ñëpp waaye di ci teg itam suñu doom di doomu dëkk bi nga xam ni suñ gàmm gi muy tey ren mooy fukkeelu yoon ak ñaar maanaam ñu ngi ci douzième édition di gàmm moom mosu ci ñàkk dugal loxoom muy doom ci dëkk bi di Ibrahima saane loolu itam ñu ngi la koy jotal di la jox itam ah ku ñuy wax benn mouvement bu ñuy wax mouvement kaarang jàppal ma jàpp kaarang ca kanam benn mouvement la ay xole ay xale nekk ci ñu ngi ciy tudd kenn rek muy Ablaye Ba ñoom wax dëgg yàlla ñëw nañ ak seen dimbal ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàpp nañ ci bis bu baax waaye di la jox itam ki nga xam ne mooy suñu mbokk daara di mbokkum taalu bi ñu koy wax Abdourahman Ndaw jiite daayira bu ñuy wax Nuurul Basar bokk ci kër Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nga tànt bii nga gis ñoom dañoo war a gàmmu samedi mu nañu mu ñëw proposé ñu ne moom dafa ñëw bëgg ñëw tànt moom mooy tànt ñun ñu gàmmu ci mu andi léppam taal làmp ñun ñu gàmmu ci bu sam bàyyi ko fi bu samdee moom mu gàmm ànd ànd gënta loolu te ñun ñëpp gis nañ ne suñu kilifa yi lu ñu bëgg mooy tiijaan yëpp nañu àndandoo nekk benn waaw ñun ñëpp seetaan nañ bërki démb euh, xadara ba amoon ca stade Amadou Barry la fa sëriñ du wax yàlla dogal na loolu mu ngi dëggu dëggu na fii ci Karang ndax kaarañ tijaan yi fi nekk yëpp def nañ benn fédération weeru bu nekk sa ajjuma jë ci jiitu danañ dajee def benn xadara ñoom ñëpp ñu bokk loolu yàgg na ñu koy def kon loolu dafay dëggal ànd googu kon Abdourahman Ndaw boobu moo ñu defal lu rëy lii loolu li mu représenté ci madda li mu représenté ci maanaa moo ko ëpp fuuf ñu ngi la koy seedeel sëriñ bi nga ñaanal leen yàlla ñoom itam yal na yàlla gërëm seen taxawaay seen gàmm googu ñu jubli yal nañ ci am ci ndam ci zahir ak ci baatin waaye ñu ngi gërëm itam daayira suñu mbokki murid yi fii lañ toogoon jàng fi ay xasaayit yu neex tabaarakallahu ñu nag ñoom benn lañ ci dëkk bi fii ñu baax lañ seen njiit ku ñuy wax mayoro mbay ñu ngi koy ci nuyu bu baax a wax di la ko jotal daayira yi nga xam ne fédération Tidiane yi ma la doon junj léegi Omar Touré moo ko jiite moom itam naka noonu waaye ak mbooleem daayire yi nga xam ne ñoo seq kaarang di dëkk bi ak mbooleem waa kaarang di góor ak jigéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp jopp ci gàmmu gi rawatin nag suñ mbokk jigéen yi ñoom ñëpp suba ba léegi kenn kenn noppalu ñu ngi leen di sant ñu ngi lay seedeel boobu ñëwee nga ñaanal leen yàlla ñoom itam yàlla jàppale leen ah di wax rek ne gàmmu gi ren mooy douzième édition ñu koy taxaw suñu doom baay bi Mor Ñang mosu koo ñàkk taxawe moo koy taxawe tabaarakallahu yal na yàlla yokk fanam ak suñu euh, waaj yi nga xam ne moom lekk cere rek la man moom <laughs> lekk rek la man mu ngi ni tabaarakallahu moom itam asu ah, waaye waaye bëgg na cere de <laughs> waaw mu ngoog tabaarak léegi moom itam naka noonu ak Eh, sama xarit ab du mbay nga xam ne ñoo daan toog ca daara ja ma koy dompat eh, moom itam tabaarakallaahu mu ngi nii waaw kon ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp sëriñ bi ñoom ñëpp ñoom nii lañ ciy taxawee ak xale yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom xale itam yàlla na yàlla daf leen mag yàlla yokk seen xam-xam ma leen di ñaax rek yeneen ci xadara boo xam ne xadara xam-xam la bu ngeen demee ngeen góor góorgóorlu ngeen jàng lii ngeen di wéy nii kilifa yi dañ koo bind kon ngeen fexe ba jàng ko mokkal ko xam ko du ngeen demee ci fu ngeen dem représenté fa kër ga loolu laa leen di dénk yàlla na leen yàlla si yàlla jàppale di gërëm suñu commandant bu baax bi mu Moustapha Mbaye ba mu ñëwee ba léegi mission xadara bi lay doxal fii terewu ko yàqal mission mission bi muy doxal ci gendarme yàqalu ko ko wax dëgg yàlla maa moom benn la suma jàkk lay jullee fa lay defee lépp tabaarakallaahu yàlla na yàlla yokk ay garaatam yal na yàlla dimbale ko jàppale ko aar ko ndax métier mu mu nekk métier mu dangereux muy gendarme di aar nit ñi nit ñi tëdd ngay jóg di waaw métier mu dangereux waaye yal yàlla dimbale ko yal yàlla aar ko ci yàlla bu mu ci gis lenn lenn lu mu ragal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, suñ gàmmoo te ren nag dañ ko tënkoon rek nan al islaamu wassalaam islaam ak jàmm loolu la waxoon te jàmm gis nañ ne ci àdduna bi jàmm mooy tax nit ñi nekk benn jàmm nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne waxoon ci benn xadis ne du ngeen gëm yàlla mukk loolu da bëggante du ngeen gëm yàlla mukk loolu du ngeen bëggante dama leen di wax fu ngeen di jaar ba bëggante mu ne lu ñuy daar fu ngeen di jaar ba bëggante mu ne ngeen siiwal jàmm seen diggante ku nekk di wax ci sa morom jàmm jàmm jooju su amee ñu nekk benn jàmm yooyu nag dafa am jikko yu ko lal di ko taawu jikko yooyu bëri na muñ ci la bokk lewet ci la bokk tabe ci la bokk waxal nit sa morom lu baax ci la bokk yooyu mooy yi nga xam ne euh, suñu mbokk incha allah muy Amadou fay bu ñëwee du ñàkk dina ci am lu mu ci leeral loo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo ba déwén loolu mooy temu gàmmu bi ren waaye sëriñ bi ah daaw ñëw nga fi nga digal nit ñi ah, ndax Euh, sama doom baay Mor Niang ak euh, Pape Fall mi ñu may wax ne dafa am benn góor goo xam ne Serigne Cheikh feeñu na ko yàggul dara mu ne ko waxal sëriñ Abdou ne ko mu wax mbokki jullit yi ne nañ delluwaat nafaraat fiqu xam-xamu fiqu xam-xamu fiqu nag mooy xam-xam bi ñuy jaamoo yàlla mu waxaat nit ñi ne nañu dem nafaraat ko kon Serigne Cheikh delloo na nit ñi ci jaamu yàlla donte ma nga barzax kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax yeesal xam-xamu fiq jéem a xam te daaw am na ay bind yoo fi joxe woon yu dem ci féq waxoon nga fi wàllu tahaara muy wàllu mbir mu doy waar moo xam ne jullit yi dañ koy di dañ koy réeree lu toujours te tahaara bu amul julli du mën a baax jaamu yàlla du mën a baax ndax il faut nga laabal sa yaram ndax nga am laabal sa yére laabal sa béréb bi ngay jullee waaye man ndox moo koy def ak noo koy defee loolu jar naa xam te leeraloon nga fi kon boo fi àndaatee beneen bind boo xam ne dafay jàngale fiqu dina jëriñ taalibe yi incha allahu taala ndax itam loolu la ñuy sént ci yow ndax tam nag seen xaaji malik faqih bu mag bu mag a mag a mag la woon ku ne xam na ko kon euh, ci gàttal dinañ jox Mor Ñang mii euh, kii kon euh, Amadou Faye dinañ ko jox kàddu moom itam mu waxtaanal nit ñi gàmmo nee na dina waxtaan ci eh, wa Abdul Muttalib ci lay waxtaan waaye balaa loolu dina am lu mu jiital incha allahu taala su paree eh, ñu jox eh, bàyyi Cheikh Tidiane Gueye moom itam moom mi nga xam ne moo jiite mboolem fédération bi moom incha allahu taala mu présenté fédération yi rek sant leen gërëm leen loolu nag ca kanam lay doon ginnaaw bu du fay waxtaane sëriñ bi tëj liñ ci mën a dellu ci ay woy ñu dolli ko ci. daldi ñaan tasaaroo ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp kon gàmm gi noonu lañ bëgg mu tëddee asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu euh, imaam danga maa bett xam naa kàddu yu du gudd muy kàddu yu ngërëm euh, sëriñ bi ñu ngi laay nuyu dala siyaare yaa ñi nga àndal euh, imaam ni mu ko waxee ni la Abdourahmane Ndaw benn douanier la ñu affecté ko woon fii Karang bi mu ñëwee mu nekk mu xaddam ci Mawlana Cheikh Ibrahim El Hadj Ibrahim bi mu ñëwee mu am fi ab diir rëdd fi kër tudde ko kër baay gan gu ñëw boo fi jaaree fanaan fa loolu doyut mu rëdd benn jumaa nekkal ku fa nekk war nga am foo jullee jumaa ja fa tabaarakallaahu sori na sëriñ bi ñu ngi laa seedal di seede rek te yàlla tax mooy daayira bi nga xam ne seen naanuwaay mooy tiwaawan muy góor ñi muy jigéen ñi ñu am pastef lañ te li imaam wax Abdourahman su fi ñëwoon dañoo wax ne gan moo fi man déedéet gan ngay ñeme lañ war a wax kon bi mu ñëwee fekk fi tariixa fekk fi kat Seex Alaaji Malick fekk fi kat Maolana Cheikh Ibrahim ñu nekk benn ñi ko doon taxawee kon moom dafa ñëw rek tafu ci ñoom jéem a baaxal ba li am eh, gàmmu gi bi ñu ko jàppee le 18 fekk moom mu jàpp la we mu ne ma su fekkoon ne de duut liñ ko annoncé Ndakaaru ak Kaolack ak Sénégal man jaral na ma sax ma fekk ko ñu def ko benn gàmmo waaye tànt bi biñ ci waxtaanee ci kër ga ñu def réunion ma ne ko comme ñu ñëpp benn leen def nañ benn fédération te am na loo bëggoon ñii tànt war a ñëw àllarba tante alxames na ñëw tànt àllarba ñii gàmmu bu samedi ñeneen ñi gàmmo lii moo sabab gàmmo gi. kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen seedeel ni daayira bii liñ leen fan wan fii ci seen kanam bu ngeen demee Tiwaawan it la raw loola ñu nga fa ñu ngi dajee ñu ngi wasifa ñu ngi dem adara ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi jokk bokk mooy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi comme ñun ñoo fi nekk da ay kilifa da ay mag su ngeen béyee ko ci adara ba war nañ leen ko seedeel parce que waxoon naa ko sëriñ ñang tey kon na ngeen ñaanal daayira bi takku nañ dëggu nañ am na ñu na am na ñu lislaam ñu ngee dimbalante ñuy góor a jigéen te yaatu na ba lépp lu ñëw rek ci daayira bi lañ fi fekkoon mu samp kon lu ñëw rek barkeb daayira ba yal yàlla fay la ñu ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لمستحقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثاره وتنهج بنهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورضي الله عن قطب المكتوم البرزخ المفتوم الحاجز بين الحقيقة الأحمدية وحقيقة المحمدية القائل قدماي هاتان على رقبة كل ولي من أولياء الله من لدن آدم إلى نفخة الصور أعني به مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السائب بن سالم التجاني الشريفي وعن جميع خلفائه وأصحابه وخاصة منهم حامل لواء الطريقة التجاني في بلدان السودان أعني به جول فاما kennu diine Seex Seydi El Hadji Malick وخليفته الذي خلفه ولم يخالفه كمن خلفوا من بعدهم خلف borom bonekaare ba borom sàkkar yàlla ba Serigne Babacar Sy maa ngi nuyu képp ku teew tant bi di leen ziar di tàmbalee sunu nuyoo ci sunu Serigne Serigne Mor Jàmm Sy sunu seexu tarbiya tarqiya macha allah moo ñu yar moo ñu jàngal buñ ko nuyoo nuyu nañu sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin aminul umma islamiya bi ittifaqil jumhur atala allahu umrahu wa baqaa wa ayyadahu wa nasarahu bi jaahi sayidina Muhammad maa dawaami sixa wal aafiya buñ ko nuyoo nuyu nañu bàyyi sëriñ Mbay Mansour Baye Hadj Malick Maodo Baye Hadj Malick Pape Malick ak Baye Serigne Baye Abdoul Aziz ak mbooram famille Cheikh Seydi El Hadj Malick yëpp si ñu ngi lay ziara ziaratan istimdaadi bind nañ ci tariqa bi ne axaat min ahli tariqa man raahum yowma aljumaa aw yowma alisnayni daxala aljanna bi gayri xisaab te daanaka tukki si nañ ci ajuma ji parce que guddi alxames guddi ajuma la kon ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu imam yi fi nekk yëpp ak président daayira yi di nuyu sunu sëriñu daara sunu magu daara alxaaji imam Keeba Ñang mu baax di ko ziyaara fa tabarakallahu di nuyu Baye Mor Ñang ak Baye Pape ak sama yi nga xamante ne day jékki xaw maa laal tuuti fa tabarakallahu Ousmane di leen ñaanal yàlla tey kontaan nañu fa tabarakallahu di nuyu waa Kaarang nuyoo bi sëriñ bee koy def di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi kilifa gi taxawee fii léegi la wax temu gàmm mooy jàmm jàmm mooy aduna aduna mën ta jag mën ta baax te jàmm amul dañu ne ñaari tur yàlla ñoo doon course benn bi mooy sattaaru benn bi mooy salaam sattaaru mooy sutura salaamu mooy jàmm ñu ne bu ñu demee ba ci kaw ba ci kaw ba ci biir kursu bi salaamu moo perte bàyyi fa sattaaru ne fan lañ ko mën a gëmee yonte yàlla Ibrahima te sama gudd ba mu gëmee yàlla bàyyi xërëm ya Namruuza Namruuza préparé ay mbiram ak ay pexeem fas yéene toroxal yonte yàlla Ibrahima gaxtu na kàmm ñeent fukki fan taxandu na ñeent fukki fan taalam ba mu yañ ba mu ne jëf jëf jëf ba muy jeeyoon yàlla Ibrahima di ko mbax boobu ana sutura sutura ku fa woon mais lan moo bees ba mu ko sànnee ba ci biir ba ci biir safara sax ci la yàlla xul naa yaa naaru kuuni bardan mais bu yemoon ci bardan ba kese kese yonent yàlla Ibrahima dina nag mu ne ko salaa wa salaaman ak jàmm bon jàmm mooy aduna buñ ko sàkkoo mu neex ci mu neex bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax juróom benn yëf juróom benn yëf yii bu koy def di nga am jàmm te mu ne juróom benn bu koy def day yàq liggéey ni doomu aadama mu ne sittatu ashyaa'in tuhbitul a'maala am na juróom benn yëf yu ne day xañe jàmm day yàq liggéey doomu aadama ñu ne ko mooy ban mu ne istixaalu bi uyubil xalqi وقت وقسوة القلب وحب الدنيا وقلة الحياة وطول الأمل وطالب لا ينتهي من الجنون بين نيني ku koy def lépp loo def ci sa àdduna day yàq ñu ne ko ban ak ban mu ne mooy nga yittewoo ay bu doomu aadama yi moo xew ci jamono rek koo gis ci àdduna bi yaa ngi téye sa góom bu rëy yokku ci kanamu doomu aadama إذا أردت أن تنظر عيوب غيرك فأنت نين فانظر عيب نفسك إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيب نفسك yeneen ñi nee ne balaa ngay toog balaa ngay toog bay tudd ayibu doomu aadama wala nga yàq deru doomu aadama mu ne eh balaa boobaa na nga toog ci sa bopp nga dugg ruq mën a kan lu wóor la ne yow yow moom yow li ma séenee wax ayibu nit am nga lu gën a rëy foofu ci lu ñaaw yaa ngi ne bàttaat moom. te ku yellul nit ñi wala nga biral nit ñi ni yellul la nit ñi laa nit ñi dañu la yellul doomu aadama day téye làmmeñam gis nga làmmeñ moo tas àdduna moo tas kër moo tas dëkk yi jaabir jaabir yonent bi dafa jàkkaarloog moom moo mu ne ko kuf anka lisaanak yow jaabir téye sa làmmeñ mu ne ko ay naa la muuxasuuna bi maa daqulu mu ne ndax lu ñuy wax ci sunu biir néeg wala ñu wax ko ca ba wala ñu wax ko ca biti wala ñu wax ko fu mu mën di nekk rek yaa def ñu mu ne ko bari na ku dugg safara ëllëg dara yóbbuwu ko ko lu dul lan lu dul lu dul sa làmme ko ay bu doomu aadama yi wóorul foo toll nga yaakaar yaa gën nit ñi wóorul am na ñaari gars yi doon wut benn ñoom ñaar ñiy wut ciru yàlla dugg ci néeg ba di xalwa di xalwa ba jékki-jékki haatif bi ñëw mu ne leen hé balaa ngeen a jot ciru yàlla bi da ngeen jot fi ngeen nekk bu ngeen jógee fi ngeen nekk ngeen dem xool di xool di xool di xool ba gis bu nga xamante ne yéen a ko gën fuuf ngeen mertaan ko biñ ko waxee kenn ki ne bëri daw ci seen ko xamante ne moom moo ko muy daw di daw di daw ba def ca sën ba ba ñu def mbalit ba mu gis waa ji ñu de dof mu yaakaar ne dof la muy di ko yoot di ko yoot ba mar tànk bi muy daw pour yaakaar ne am na cër ba ñu doon wut ba mu eggee fekk na waa ji moom bàyyiwoon ci néeg ba waa ji jël na cër ba bu yàgg ndax waa ji dafa toog mu ne adduna bi man maa fi gën a yées gënuma kenn ñëpp ma gëm mu yëkkati tànkam marxamu tànkam yàlla jox ko martaba kon istixaalu bi uyubil xalqi nit day téye làmmiñam téye sa téye sa làmmiñ tàllal ko ci dëkk bi ku la naqari rek nga yàq deram ku la soof nga yàq deram ku am daraanga nga yàq deram imam bi ci koñ bi nga yàq deram dee leen seen làmmiñ yeneen bi nee ne ku ma garanti ñaar ñaar laa wax ku la ajana mu larun aj wa faani ñaari pax yi mooy kon mooy jëmmal ak bëri doomu aadama sa sëy yeneen bi ku ma garanti ñaar yooyu ba doo ci mooy yàlla dinaa la garanti àdduna wa istixlaalu bi uyubil xalqi nga gis ci woo nit ñi da nga bàyyi sa ayibu bopp yeneen bi nee ne lépp loo jaamu yàlla yàlla ko gis ba ca des mooy lan wa qaswatul qalbi a xol bu bon moo garaaw moom la Serigne Cheikh le mooy dénkaane bàyyi ko Sénégal mu ne eh, Sénégal maa ngi leen di wax mu ne mu ne raxas leen mu ne nañu nañu sang dëkk bi balaa koo tere te sang ñu yaakaar ne sangu ca la wax mu ne déedéet nañ ko sang xol bu rafet. إن في الجسد لمضغة إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب يونس نينة أما لوبو bu nekk ci doomu aadama bu jagee lépp bu doomu aadama ji jag mais bu yàqoo lépp bu doomu aadama ji yàqu ñu ne Seydina Mohamed loolu mooy lan mu ne mooy xol bi jamono bi lan mooy yàq aduna bi xol bu ñuul xol yu ñuul yi Serigne Babacar Sy nee na fa inna abqaakum xayrun min aswadikum ñuul ñuul ñi moom bu dañul yàlla di xam solo ya aswadakum xayrun min aswadikum ñuul ñi moom bu dañul yàlla di xam solo ya sababu lu leen ca bu leen sukkandiku yàlla bu baax boobu mu ne fa inna atbaakum xayrun min aswadikum mu ne ñuul ñuul yi ci xol bi bu dañul yàllaa di xam solo ya xanaa xamoon ne Baye Pape Fall borom xol bu ñuul du dugg àjjana borom xol bu ñuul du dugg àjjana Seex Seydi Xaaji Maalik dafa laaj sëriñ yi lan mooy aljana ñu ne ko fiihaa aynun jaariya fiihaa sururun marfuu'a wa akwaabun mawduu'a wa namaariqu masfuufa wa zaraabiyu mabsuusa Xaadim Malik ne nee leen hé bu nekkee loolu mooy aljana man Maodo gëj naa aljana ñu ne Maodo lan mooy aljana ma taxawal ma xoolee alquran muy xoolal alquran am Seydi Xaadim Malik ba dégg nga gis fi yàlla wax naan wa naza'naa maa fii suduurihim min xillin fi yàlla waxee rek bu ëllëgee balaa kenn dugg aljana damay raxas sa xol ba mu set ci iñaan ak ñuul ak soxor bu xol yi setee nga doomu dugg ajana alxasuudu laa yasuudu ku iñaan du nekk sang yaa ngi nekk ci ku dawal oto nga ne ko pourquoi mu am ko ku sol gasmeeram pourquoi mu am ko ku yàlla jox dara nga ne pourquoi mu am ko iñaan iñee ci iñee yi dina la jaral dina la jaral nga dem wuti sëriñ pour fas yéene damm tànk waaj ñu nga jamono bi lan moo ko yàq xaccoo ak xeex ak sotante ak yàqante te yooyu yëpp lan moo ko waral mooy xol bu ñuul soo benn waay nee ne bari na feebar yu am léegi feebar yu am léegi nga jékki-jékki ñu ne tas ñoo la du doon tas ñoo xol yu paan xol yi ñoo paan da ngay gis am ku yore karanga nga di ko ko soxalee ñu bëgg ci soxal ngay gën a ñuul di gën a wow di gën a ñiis di gën a ñex والدنيا في الدنيا وابتعد القلب من حقد ومن حسد وكل ست من بين أقران فالحاج منصورين والطهري والطهري لنا اللابر لدينا من القلب حلبي من حقد الجسهر وحفر الأكتنان وكل وصف ذميم أبب أبب ملوك الماني بين أقران جسدك التيمم كف اللسان ولا تطلق ذا عذر من كف نما نما اللسان سلامي ولا topp lépp bu mu ko boyee de hasarin nga bàyyi ko muy dem ci doomu aadama yi. an irtiyaabin. namimatin wa buhtaanin. an irtiyaabin ngay jëw foo toll. wa namimatin ngay ràmbet. wa buhtaanin ak sosal doomu aadama yi. أرصائي جدك سمي وادعي أبدا من وشمر لك من أنا وقصاص جدك من كسا تنكو كسا تنكو كسا تنفر ولم تكن ذا جوال فعل خيرا يريد أعود أبي الحجم بارك الله بارك الله جزاك الله خير امسحي جدك الصم والدعي ابدا ولنا نفر نفر لدينا كفر di jëw nit ñeeg leen yàq farlul ci leneen lu dul yàqu doomu aadama yi moo gën ci yow. wala takun zaata waanin bi'lu hayraani. barakallah yàlla yàlla fay la. wa xaasib nafsa. wa bi dunya muxaasabatan. bi dunya muxaasabatan. qabla xiyaamati xasaar duuna xusraani. duuna xusraani. barakallah wa wa xaasib nafsa bi dunya muxaasabatan. wa xaasib الدنيا محاسبة قبل القيامة تربح دون حزن لعل رحمة مولانا الكريم غدا تهمنا مع إكرام mu ne ko xaasibin nafsa mu ne nit ki na nga na nga na nga réglé sa bopp wa xaasiboo anfusakum qabla an tuxaasabu baa nga ñëw yàlla bu mu waxee ne da nga réglé sa bopp ci yombal ci àdduna balaa laa yàlla réglé moo tax maal xaaji Mansour nee ne balaa ngay dem àllaaxira yàlla di rek le wa xaasibin nafsa dunya muhaasabatan qabla al-qiyaama balaa yombal qiyaama nag boo baa tar baax ci nga tonn doo na xosraani ci lu dul perte kon ma ñëw kasfatul qalbi gis nga xol bu bon baaxul ñetti xol moo am ñetti xol qalbul maay qalbul rafib ak qalbul qaasi qalbul qaasi baaxul kalbur raqiib moo baax ñi nga xamante ne mooy wax alquran ñuy jooy wala mooy tudd yàlla ñuy jooy wala mooy sikkar ñi imam mawda hunalika manu saari irannu jabaay mawda من التلاميذ من ابن عثمان هنالك الفيض يبكي في تدفقهم سلمان من ابتدائية تحتانا وتحتانا مدرسا كل حين كان مدرسا فما يتكلم واحد بين المدارس بيتانا وسودانا ملك بامبود يا كناتان يا تان سياتان سكن بودا مبود Jehovah be the guide, Lord forsake guide. Ni xey dina la ay ñari la bay. Sid Haji Malik ba ci mo ba gannar. Ñoo ko say nar. Ni xey di bakar. Wa xaw ci gannar. Ma mawdo jëm ko fi sin. Lord forsake sin. Ko ko lay Alaaji Malick Maodo. war na ci kaw ñay Maodo. kaw gu naan tey. sëriñ damay xëy. mam Maodo koyoo fi say tool. sërxe ca yamba. naf ko ci say daaw. jaay ko jàmba. Maodo ku musta nekk yàpp mbaa muy wuuri njëtti xar ku ne lekk na yàpp xaj ca ndar dangay tase looloo la am ku lay dëkkee si dëggam moom nag dafay siiñal ma xam ndem yor na ba ñu yor ay weesam booba dara talu na ku jaram kon nag loolu mooy ñi nga xamante ne xaraami maanaam تهلنا بالتنزل ñoo ñoo fekk ci passé dunia dem dappoog yàlla jaamu yàlla nit ku baax pire bul jël aduna nga def ko muy sa kër bal ad-dahr in daara al-ghuraabu yatiibu wa jaa rasuulu l-mawti ba'da yanuubu araaka nasiib al-mawta wal-mawtu mawridun fa lil kulli min baxri l-mamaati nasiibu Seydi Haaji Malick nee na boo demee boo demee ba sa karaw commencé bécc yaaw na nga xam ne ndawal dee ñëw na nga préparé nag ba séenee seeti sa borom damay tënk rek bon nag xubbu dunia wa zaalimun laa yantahi mooy ki nga xamante ne day tooñaate te tooñaate bi muy tooñaate ba séenee cee continuer faaliwu ci kenn reesul ci kenn waduwul amal ak bëri mbébét fa tabaraka la waqillatul xayaa yi ak néew kersa baaxul dama tënkale xadis kon yooyu bu ku koy def lépp looy jaamu yàlla yàlla yàlla du ko xool ba ñu du ko ci Seydina Muhammad wa Abdu Mutalibin min baadu min baadu marra ila fatati

Nizam. Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Bye.

Amadou Faye mama ka yaani ko len feeru sabu ko amni sabu ko fiiri fiiri ko fiiri ko waay ko mar fiiri ko waay ko fiiri ko waay til majidi wal ra ra mi yal yal bayal kafi al alif nene wa'abtu mutalibin من بعد من بعد مر إلى فتاة سورة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترمي من عبد المطلب ginnaaw Seydi El Hadji Malick nee ne ginnaaw bañ ko bantalee xista ba gudd na ba ba dal ayam Abdullahi ñu naroon koo rey ba mujj dal ci gëllam ba mu ñu ne tey de xaaji Malick loolu ginnaaw bi mu amee lan moo xew mu ne marra marra ilaa fataati suura gis nga marra bu jalgatee ilaa yaani qasada mais bu jalgatee an yaani huwa murur wa abdu mutalibin min baadu ci ginnaaw loolu marra jublu na ilaa fataati suuratin ci jigéen joo xamante ne ju taaw la ju weex tal foo may kan bokk ci benn suura saatil maj ci ngay borom jeetange war karami ba ñuy dem ci yoon nag maraa ci la ñuy romb alam raatin tudaa bi fatimatin tabaxil mamaala ilayha waxyaram tirami bàyyam dafa ànd ak moom jubal ci aminatu bintu warabin pour wutali ko soxna mais ba mu koy soxna ci la ñuy romb benn jigéen jigéen ñi ñu ngi wax fatimatu bintu murrin ba mu gisee leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndikkal Abdullahi mu gis leer ba ndekete yow jigéen moo jëkk gis leer ci góor moo tax sëriñ Abdul Aziz bu baax bu maandu wax na dénkaane ci yow mu ne ay eh taalibe yi moytu leen moytu leen moytu leen jigéen ñi. kurus leer la leer day xëcc jigéen alquran leer la alquran day xëcc jigéen salaatul fatiha leer la salaatul fatiha day xëcc jigéen bon boo xëcc booy sikar leer bi nekk ci yow jigéen ñi dañu lay gis buñ la gisee ñu bëgg la nga ne yaa yore bës bi wala yow yaa ko yore moo leen di jege di xeeb ñuy ngacc sa leer lay wuti suuf di sangu ci bayre ba mu gisee leer ba mariam laa rabtuka bi fatimatin تبغي ممالا تبغي الممالا ألف لام نابا الاسم عبد الله تبغي الممالا عبد الله ميزاك تندم عبد الله وهي وهو محلى وموضع الحال ابتديء الجملة كالتأذين وهي حال الرحلة لولا برم فتبارك الله نحو واحد سيدي حاج مالك وهي موم لم ترمي بمكسي عبد الله يسأل بقول بمتار mu sàkku ko ba mu ko sàkkoo lan la ko wax amma alxaraamu fal mamaatu duunahu wal xillu laa xilla fastabinahu fa kayfa bil amri alladi tabginahu yaxmi alkarimu irdahu wa diinahu maa ma xanaa xamoon ne yàlla yàlla doom yu baax yu mu daan maye ba léegi magasin ba jeexul mais jigéen ju baax ju ko jur moo ko fi amul suñ moor dina ci ñëw demam la jigéen muy sol jur ma aawut wala ngay peteel wala ngay sol fuseau bu bon doo jur bu baax gis na ndaw soosu gis na waaga dem ba mu demee da ko ne da ko ne sa def lu xaraam dee wuute ko mu bëgg la mu ne ko kay fa bil amri leen di tabxiinahu li ngay sàkk noo ko ma ne yaxmil karimu irdahu wa diinahu booba abdullahi ñaata at la xam waxaata islam Abdullahi sayyiduna xatwan ila alxayri naa fi tayri wal jahami wasaaka Abdullahi sayyiduna xatwan ila alxayri naa fi tayri wal jahami rasulullahi ñu ne ko abdullahi ñu ko doon ci sàkku ñaata at la am mu ne xaada làq na issaaka ci jamono yooyu abdullahi xadwan ilal xayr xadwan muy tawriya day am maanal bayi ak maanal qarib تورية تدعى لإيهام لما أريد معنى البعيد منهما نلقى سيدي واحد سيدي حاج مالك xam-xamam lépp la ci dugal baxru yëpp la way rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baxrun tawil wal muhaydu xaatilu kaza basirun waafil wa tajirun hadajun wa rajasun wa tariqan muhaddadu daifuha mutaari muqadab murtadaha muqtad mutaqaribul xabab fukki fukki baxru ak juróom sexteedil xaaji Malick yëpp way na ci rasulullah ba mu def ñeenti baxru hadaj ak rajat ak muqadab pourquoi way na ci rasulullah mu ne dafa élémentaire moom dafay élémentaire man Seydi Hadji Malick mooy mooy rasulullahi damay seet ba xam ne jafe-jafe jafe-jafe. ma dem woyte rasulullahi mais bari na ñu way di way di way sama classe gi di wayantu ñu wuti Hazret ak Rajab ak Munsari ak Muqtadir seeni Xaaji Malick naan nag yooyu dafa élémentaire mu ne bu may tëgg da dama rasulullahi damay seet fagga mu gën a safe ma wane sama xam-xam ma jaxeeti Xaaji Malick ma tëjee ko foofu ma Ousmane xanaa xamoo ne bomba ji ak yaaw daal du combat du combat Bombardier Keweul Kar du combat laa wax Bombardier daf koy boole ak mu naat tàngoor boo jëlee Bombardier boole yaa ba jaawu jaay bu boobaa dafay rey mooy làmb pël ba séeréer ba pël ba séeréer pël ba dafa ñëw rek songo sama mbokku séeréer ba gis millions yi ci làmb ba mu ñëwee sa mbokk gars yi tëggal leen làmb te boole ko benn xel la benn xel am nga benn xel benn bët. gars yi dem ba ca làmb ja gars yi lawaatoo di lawaatu abid ne bit sa mbokk séeréer di xool bët bu baax bi rek di xool bët bu baax bi rek ba jëkk pour ba lépp tëpp ci bët bu baax bi gisatu mu ne at bi tàggawal mu ne ma ne kan moo fay làmb yi. Ah, mu ne kan moo fay làmb yi. parce que gisatul léegi nag moom ñu ne ko nag muy bàyyi sama nit bu ñu gisatu am ci suuf la wax yéen bi ne wax képp ci bopp ba yëkkati ba ca kaw doon suuf ba ca egg ci def nag du ma ko eggale mais Seydi Hadji Malick nee na bu may tàggal rasulullahi lam dama koy tëddal lam ba ca benn lam moo tax maan Hadji Abdou Aziz nee na wa mu leen ko xooli ixtartu baxral kaamil pourquoi li kamaalihi lu tax li madixi Seydi kaamil moo tax bax wi fukk ak juróom yëpp Hadji Malick ak xam-xamam bu leer ba tàgg na ci rasulullahi xaj ba mu def ñeent yooyu mu ne xaj wan mooy tawliyam وبحر علمك وبحر علمك هز الناس ساخله زيادتي قريب بعيد الشمراء yaa jëf-jëf bu xam-xam may ko waxamaa ñu jëfe am am sa. kuy xuus di góorgóorlu ba egg fas yéene ko dam ku la nekk ci géej ga ci tefes gi la yem rek ça va mu yaa xam nag ku góorgóorlu ba waxu nga wax nga fas yéene nuur fas yéene xaaji Maalik nuur ci xam-xam ak xasal ya am na ci li ñuy woy ba dee ba suñoo xasal ah dafa jafe yëf yi dem saf la rek dafa saf de Maodo la ko mu tànge la ko def moo tax mu ne ko xatuwaat maa ngi ñëw léegi parce que bu ñu fa def xatuwaat xaaba ñaata la huit daal kaas huit plus quatre muy douze mu ne xam nga dina firi mang muy maanal bari ak maanal xarib Abdullahi boobu mu ngi am ñaata dix-huit ans ilal xayri naati dayri ñu ne Seydi Xaaji Maalik leer boobu pourquoi nga xañ ko Faatumatu bintu Murid bi nga xamante ne gis na Abdullahi mu ne ko li kay yusayiraha sa ton li durratihi aminatan naqiya an sairi iwami Xaaji Maalik nee ne leer boobu man jël naa ko fas yéene koo jox kan aminatun amina bi nga xamante ne bi sell la ak saayir droit bi ci lépp lu ñuy ci lépp lu ñuy tuumal jigéen wakiila saw wajaaha waudun wakiila muhibun وامرأتي بحجرهم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما وافتقارا من جدودهم من سيد الحاج مالك ولا حمد الله كان مؤمن عبد الله امينه mu ne xakkee man Maodo xam naa ko ñu ne ko Maodo kan mu ne wax kii la zawajaha Wahbul ñu ne Wahbu bàyyam moo ko may ñu ne déedéet Wahbul baayam wa ammuha baay dëxam ba wa murabbiha moo da ko yar di xajrihi mi di néegam mu ne wa hiya amina bokk xëy na itam jamono yooyu aalan nisa moo gën a kawe jigéen ñi sarafan ci teddande aalan nisa moo gën a kawe jigéen ñi iftixaaran ci puukare aalan nisa moo gën a kawe jigéen ñi ci ci juddoo di himi ci ay maam yu baax bisi bi yawma sinal muxtaara kon la ko jëlee fii si jafuru Abdul Mutalib yow ma salaam sa altine mu ne xat xamalat xat taxdiq la taksir am na taqlil am na taqrib am na mais xat boo ko séedee Xaaji Maalik indi xatu taxdiq la xat ci dëgg-dëgg xamalat am na ñu rasulullahi fi sha'bi yawma sina ci sha'bi ca ca xunta ba yawma sina wa qaala wax na Sahlu bnu Abdullahi zul wasam li mu wax mu ne layla la aru layla al arbaati mbooloo mi ni leen kii taxaw di wax dafa wax ni kii mooy sëriñam moo ko jàngal sëriñ nag bu ndongo nag bu sëriñam teewee muy tari te la muy tari mees koo dégg ci xilaas su saabu maama bi dama bëgg balaa firi bay bi lay def aroo bëgg ni ñëpp fekk ko fii jox ko addi maama ci waaw ñëw leen ñëw leen mu ne lay la laaru ba. def yàlla boo ko ñàkkati. yow ci maa xëy ko. mu ne lay la laaru ba. aajo faju nag. ñëw na tuuti àjjuma. taanu bi mooy tari ci kanamu sëriñam. mu ne xam nga turu fii la la bi. aajo faju góor ak jazakallah xayran jërëjëf. sumal munaadi yunaadi musmi alfahimi. lay la laaru ba. loolu moom du arabu jahiliya la. ca à ca ca jaahiliya. jox ko ajuma ñoo ko tuddee woon layla la aruba. bi ajuma ñëwee islam ñëwee. ba xamante ne gaa yaa ngi dajaloo ci bésu ajuma ci la ko yàlla ci la ci la islam changé tur bi tuddee ko yowmul jumaa. boobu mu ne layla la aruba guddi alxames bi. xaaral la wàccee lan moo wàcc. addurru wurus ba. fan la wàcce fii nekk fii ci loolu la lépp. sumbal mu naa bi aji woote jë. munaadi moo ngi woo kan lay woo al musmia mooy ki nga xamante ne moo ngi dégg ci nopp al fahim bi mooy ki nga xamante ne moo ngi dégg ci xol talaatu ana nuur al xatmi laylakum قد حل في قيمة من عاد القيامين نبي وأنا أجمعين سلام بداجاء منع ما بساخبي من أن بيوت من كنبوها لك معجزات أعجز كل الورى ما كان اليد من بنيك من تنبه يولد mu ne mu ne ànd ak nuural xat bi lay la ku mu am na ku woote kon la woote Baye Mor Niang ci aalamul mulki aalamul malakut aalamul naasut aalamul hawut aalamul jabarut aalam yooyu benn bu am na lu ca yàlla bind mais am na malaayika ku woote woo mu ne eh, ni yeewu ànd ak nuural xat mi léegi nga xamante ni moom mooy kat xal la wàcce na fan la wàcce lay la ku mu seen guddi gi fan la wàcce min abhari la xiyami a dafa moo di saatun ajada kulla alwara ko soppi yeneen jógal màggal yeneen ci. ba loolu xale bi bi yéen dafa mooy damaa war na benn waaye ñu jël ci loolu pour jox leen bi. dafa moo di saatun ajada kulla alwara. ba di woote ci aalamul mulki ak malakuuti. dafa moo di saatun ajada kulla alwara. am na waa di om لك معجزات أعجزت كل الورى الموم لإبليس يقوم وأن لن لا رعيم الحب يحضره أمس بين لك معجزات أعجزت كل الورى جنونه وهو رديد من السلم لك معجزات أعجزت كل الورى الموم لإبليس خاتم تقول أبا قبيصة لك معجزات أعجزت كل الورى يوخ يوخ بريكا يا رب إبليس الوخيو لك معجزات معجزات واعجزت كل الورى من الله لك اعطاك ما هلاك القتالى لك معجزات واعجزت كل الورى من القل قال انك العمة كل جفوف سياق تنبر لك معجزات واعجزت كل الورى عملك الوهبي قدم رسول الله يموت ترى لك معجزات اعجزت كل الورى سيد الحاج ما نملك ان ولك عمل ينتبه اليوم لك معجزات اعجزت وكذبت كل وجاء آدم تبصيرا وفيس لها إدريس نور وهو حي السمين لك معجزاتنا جذب كل الورى ثم الذبيح كلم الله كلمته من اول في تعلم الاحوال لك معجزاتنا جذب كل الورى ادم موجد اليوم دوك كلامنا لك معجزاتنا جذب كل الورى لك ادريس النوح يوم لك معجزاتنا جذب كل الورى كان يكون لك امن الله امنا لك معجزاتنا جذب كل الورى امن ما تكتك لامنا رسول الله nekkuma ci dara. lakum mu'jizatun a'jabat kulla al-wara. xanaa ba def ko min am yow lama ataha li ziyadati an-nisaa ar-ra'aya. sayyidil mursalina a'jabat kulla al-wara. janaaha tayrin nadala hada min jusumi. سيد المرسلين عجبت كل الورى بآمن كما بأن جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين عجبت كل الورى يلا دفع يمن دني بيتشبو يومور لا فمشي نبو آمنا سيد المرسلين عجبت كل الورى آمن ما يدو ما دلت متن محمد نجيكت نبو يتشو وزن دم دم آدم سيد المجاهدين عجبت كل الورى يا أمنا يا رجل ينيو تحوتك نبو آمنا عجبت كل ما رأى ñu ne ñaari jigéen yooyu kenn ki kan la kenn ki Asiya la kenn ki Mariama. sayyidul mursalin ajada kullal wara. Mariama jigéen ju baax la woon nekk ci banu Israila. Abu Zahra sayyidu taa'ifina. mooy jaamukatu yàlla mu nga benn bés mu xëy tuuti. Abu Zahra sayyidu taa'ifina. yàlla yebal malaayika ci moom ni fi ngay fonte laa lay may doom fii nga nekk. Abu Zahra sayyidu taa'ifina. mu nekk jigéen ñi amul jëkkër ànd ak góor nan lay amee doom. Abu Zahra yàlla daal di ko ëpp roo xam ci boobu mu daal di ëmb ci saa si wusul ci saa si. Abu Zahra Mariama Jaxla nan lay demee ci ay waa këram. Abu Zahra yàlla ne ko telee lay jox ba ñu leen waxul si léegi ba ci sax naxlati. Abu Zahra sayyidu taa'ifiin. Kaamin alayka rutaban jamiyya. Abu Zahra sayyidu taa'ifiin. yaa ngi ko bu nekkee da ngaa jaaxle garab bi nekk sa wet te mu wow ko mu yëngal ko boo ko yëngalee dina màgg ci saasa bu màgg ci saasi dina màgg ci saasi ñor ci saasi nga wécc ci saasi lekk ci saasi. ku sopp yonent bi dafa ni sayyidu taayifiina. ah Mariama Gaas moom di dem ci ay waa këram. Badrun Sara ndey ndam. mbokk yaa ko yaa Mariama. Badrun Sara ndey ndam. maa kaana abuki imra'a sawin. Badrun Sara ndey ndam. Fouti Baxiya. Badrun Sara day na. Sëñ Mariama foo jëlee kàcce bi. Badrun Sara day na. sa baay nekkul woon ku bon. Badrun Sara day na. sa yaay ndawul taxawaalu. Badrun Sara day na. ñoo sàkk ni ma indi doon. Badrun Sara day na. fa asharat ilayhi. Badrun Sara day na. Mariama daal di joxoon Sara. Badrun Sara. علينا وإن كان في الله سبيلا سبيلا بطل سرى علينا الله وخير بطل سرى علينا أقول لك بتبيسو بطل سرى علينا ليه مطلع حبه بطل سرى علينا نحن يحبهم أبصر علينا يا جلال سيدنا محمد أبصر علينا رفقة الأمل عيسى أبصر علينا قل إني عبد الله أبصر علينا أعطاني الكتاب أبصر علينا وجعلني نبيا أبصر علينا جعلني مباركا أبصر علينا أينما كنت أبصر علينا وأوصاني بصلاتي أبصر علينا وزكاة ما دمت حيا أبصر علينا ومرحب بوالدتي أبصر علينا عن جبال السقيا بين المكة وبين سر علينا ونعم علينا بدر سر علينا ولدت بدر سر علينا عروة بدر سر علينا حيا بدر سر علينا اتذكر يا الله بدر سر علينا من ذلك عيسى بن مريم بدر سر علينا قول الحق لربي سر علينا بدر سر علينا عيسى بن مريم بدر سر abdullahi ne jaamu yàlla la aataaniyal kitaaba jox na ma téere وتعلم الأنبياء بدر السراء خير الأنبياء ليلى وكم الليل يلا بدر السراء ليلى وكم الليل ويجرم بدر السراء ليلى يا من عبد رسول الله بدر السراء ليلى مريم ولو تخوت كلامه بدر السراء ليلى أما بنتك اللي Rasul sara day doon. mooy Asiya. Masopay Ndiol Maka Batul sara day doon. Batul sara day doon. Jëgëmul Firawna. Batul sara day doon. Bi Musa ñëwee. Batul sara day doon. Sama kutu na la. Batul sara day doon. Sama tënk ko. Batul sara day doon. Asiya gëm Musa. Batul sara day doon. Firawna ne ko. Batul sara day doon. Batul sara day doon. Batul sara day doon. Batul sara day doon.

أشرقت من القوم كانت ظالمين ولم ترى أي برم به الوجود أفولا بلد به دوم فرعون بحر الشريف سيد على كتل مختما ومقصد يترى قلبا بسيطة يعلم اللنيا أربعة تتبخل من جيب تعدلا والطولا رسول الله نيو بلد به يا لم يتلقوا ذات الذي لك المصطفى كم جابرت شكنا تكرك بلقائها وجدوا جبريل سيد حالي مالك لينه مكة بوجوده يا ابن فكستو جسم محمد من على سما دوم جي كنت يلا وحنا لي ملائكة جل رسول الله يبقى عجنا حكيم مدمري وعجنا بأمثال وفنك دوايا محمد وكت كباندر أسطن أكت كتاكر وأكيم رسول الله المدينة ملائكة يقولكم أكيم لكل نسل حكرم ملائكة لم نصنع له لن ننيو السلام عليكم يا جابو نيك تي يير نبي نك جابو دي ووتي في buñ tuddee kàddu gi moom la Rasulaana mu nuyoo ba mu ko indee Alaaji Malick nee na ñëpp xam naa Rasulullaahi ba mu juddoo lu mu def mooy yoon bi sababata ñëpp asabi ahoo ñëpp musabbihi yem na lool wa saa yenoon yi Seydi Alaaji Malick nee ne ñëpp Mustafa tuddoo dafa jël baaram ba tàllal ko مدرون سرا جهل يلا مدرون سرا يا مدرون مدرون مدرون سرا مدرون في علم مدرون سرا ليلا مدرون سرا مدرون سرا ليلا في العزم جاري لنت سيدنا محمد مدرون سرا ليلا rasulullah patron sara leylan noonu la tuddoo tudd bu sell boobu Seex Seydil Haaji Malick nettuluñ ko patron sara leylan mooy jox sëriñ fa tabarakallahu dama la doon ba ci kanam fin bi ma doog a laal parce que li ma bind dew ma kenn bind na ko ba ko bon ku am ku mel ni kii seele ni ci kii looy waxati bon yàlla ni yàlla mooy loo ci Seex Seydil Haaji Malick yàlla ni yàlla dundaloo ci Seex Seydil Haaji Malick yàlla ni yàlla rey ci njabootu Seex Seydil Haaji Malick moo doo mel ni moom waxuma sax moom mais doomu Sëriñ Babacar xam nga taxaw ne ne mosuma mooy yàlla mosuma mooy yàlla te moo ko ñemee ku ko ñemee wax na yëkkati bon sëriñ bi àdduna bi dafa bari ay sëriñ dafa tas bi ñëpp a ngi woote surtout jamono bi ñëpp a ngi woote ay sëriñ lañu rekk waay ñun bu ñuy gëm nañu xool ko ñuy gëm nit ak personnalité nit a xam-xam bi ko yàlla jox nit a dignité bi ko yàlla jox ëpp na topp ko xamante ne bu ëllëgee yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya walata laytani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani an dhikri ba'da idh jaani wa kana shaytanu lil insani khazula Seydi Hadji Malick ci bokkam njabootam fa tabarakallahu yàlla fi yàlla saxal jàmm ah li ma naroon a jël sa boppoo na loolu mais bopp dafa guddi fa tabaarakallaahu ma jox sëriñ bi mu tëj yal nañ ko fekk ay déwén déwén te yàlla yàlla yokk sutura ak jàmm teraanga xéewal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jox sëriñ mu yeggale gàllankoor. wananga aimelo jefeka aisolondo sefo wanena aimelo jefeka aisolondo sefo wanena aimelo jefeka aisolondo sefo mail islam biyai ki koyor tariqa bi yakol abdunadi yengom jefewo melom dosen maram bayanu doy bayanu doy sindi abubakar

dinaa jóobool seeni tool bay leen ba doon tur booy liggéey andoor su dammee sax ci ay lu bi baay sa doom ngaan tukkal bu ko maam si fi jëf njay boroom ba nga bay nuroo kay set ay mbir na ñëw xam ne mbir laa mooy set ay mbir yëppal koru bu ko neex di leen bay doo شب أمامك جبريل حيض مع القلب في الورى يخشن بالعدل والمدير من يندلق يولد جدريا يقبح ليسر الهوى يقلب عقب الورى يخشن بالعدل والمدير

seen morom fa dem ba ñaan dootoo fa nga juddoo seen morom fa dem ba kii dootoo fa nga juddoo seen morom nekk ci jàmm si ne wala fa nga aliftu amal habibi فضايا لا تطيع البغية الوسيلة وتنبغي بطرف الدوس المرود قلدنا موت يا كيرك تتعال بلي لم بمسنا قول قلدي في دوس المرود mooy ma ndari Dakar te ku taar defe mooy ma ndari Dakar te ku taar defe mooy ma ndari Dakar te ku taar defe mooy ma ndari Dakar te ku taar defe mooy ma ndari Dakar te ku taar defe munu manke rappe na dem siyaare ji bay boroon Allah nee na Mamadu Abdallah Dose borom nabi nee na Cheikh Tidiane Chérif doo seen borom Cheikh nee na Maodo a ma doy doo seen borom Maodo nee na Khalifa yaa ma doy doo yaa ma doy doo seen borom nanu leen ci mbay dañu fa daraw ci mbay dafa nu ngeen ci mbay dañu fa daraw ci mbay dafa nu ngeen ci mbay dañu fa daraw ci ci bay Cheikh Mansour si ne. dafa raw ci bay Cheikh Tidiane si ne. dafa raw ci bay sunu bay Abdu ne. dafa raw ci bay sunu xalifa bi ne. dafa raw ci bay sunu bu banga ne. xalifa Babacar Sow su banga ne. xalifa Babacar Sow. su jaam. sunu maam xalifa Babacar Sow. sunu بابك وشم تقوم خليفة بابك وشم بابك خليفة بابك وشم كنالتي خليفة بابك وشم جبات كون خليفة بابك وشم جبات شوف خليفة بابك وشم كنالكو خليفة بابك وشم نروج ما يتفضلات ما يتفضل سن يتفضلات ما يتفضل يتفضلات ما يتفضل سن يتفضلات ما يتفضل Porque terminar a desigualdade terá isso, mas

at mu nekk yéen. ci mbay si nekkal ci fi. at mu nekk yéen. ci mbay si nekkal ci fi. ci mbay si màggal yeneen. ci mbay si ñëw na teew. sëriñ ma ñëw na teew. ci mbay. Mor jàmm ngi. ci mbay.

loolu moo di lan dafa dara ci baye moo di dafa dara ci baye moo di dafa dara ci baye moo di yéen بارش اجمو دراوت بارش مل روانيني اجمو دراوت بارش اجمو نكيه اجمو دراوت بارش يوتام كبي اجمو دراوت بارش ما كريلا اجمو دراوت بارش مور جامبلو اجمو دراوت بارش ما بابك اجمو دراوت بارش ما بابك اجمو دراوت بارش ما انت اجمو دراوت بارش ما بابك اجمو دراوت بارش ما بابك ci bay atub baa ngi ni xaw si bay di seex Seydi Abubakar seex bakar karama ya du bay du seex maro atub baa ngi may xaw si bay di seex fara tule la ma ci ku bay tena ma li sabab la ya du bay du seex maro ah, kon nag ñu déglu sëñ Mor ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp ci nuyu waa dëkk bi Fatou Boub. Kiné Diop. ñi nga xam ne ñoo jiite jigéen ñi daayira bu mag bi. daayira bu ndaw bi Adama Badiane. ak ak ak Aliou Ndiaye. yéen xale dëkk bi yëpp. yéen xale yi dëkk bi yëpp. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di gërëm. di leen sant. di leen sant. ci seen taxawaay bi. ci seen taxawaay bi. yokkute gi ci dëkk bi. ak yokkute gi ci dëkk bi. di sant imaam yi. di sant imaam yi. képp koo xam ne yaa ngi bokk fii ci Kaarang ba am nga laaj. képp koo xamante ni yaa ngi bokk fii ci Kaarang rek ak li ko wër. góor jigéen. góor ak jigéen. mag ak ndaw. mag ak ndaw. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di gërëm. di leen sant. di leen sant. ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñëpp ñoo ko bokk. yàlla kenn moom. yàlla kenn moom. te lii lañ bëggoon. te lii lañu bëggoon. woote nit ñi ay si ñu. woote nit ñi wuy si ñu. ma joxoon lettre dama yëgle ko fédération bi. mais yéen a ma joxoon lettre dama yëgle ko fédération bi. yéen ne ma ko kër Samba Gueye. daay yëpp am nañ. daayira yëpp am nañ. ñëpp ay si nañ. ñëpp ñëw nañ. mu gannaaw bu Kiné Diop wéyee. gannaaw bu Kiné Diop wéyee. Papa Diallo moo jiite Koskas. Papa Diallo mu ngi nii. mu ngi nii. Euh, Papa Lo. Papa Lo. Kër Samba Gueye. Kër mu ngi fi teew na. mu ngi fi teew Kër Sall. Kër Sall. Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye. teew nañu. teew na. Ba Babou Gueye. Babou Gueye. Daayira Kër Ali Gueye. Daayira Kër Ali Gueye. teew nañu. Jim Dramé. gis dara kër Ousseynou Diagne kër Ousseynou Diagne teew nañ teew na Sakhir Gueye Sakhir Gueye kër Ali Gueye kër Ali Gueye teew na Alaaji Jim Touré Alaaji Jim Touré kër Ambu teew nañ teew na Alaaji eh, Jim Gueye Alaaji Jim Gueye Jim Gueye Medina Ngaye Medina Ngaye teew nañ teew na Bamba Dara Bamba Dara Abdoulaye Cissé Abdoulaye Cissé teew nañ teew nañ kër Serigne Gueye kër Serigne Gueye eh, Mouhamad Lamine Gueye Mouhamad Lamine Gueye moo jiite daayira ba ne sama doom moo jiite daayira mu ngi fi teew na mu ngi fi teew na Mansour Gueye sama doom Mansour Gueye sama doom Ndakaaru Mogadee Balla Sarr Balla Sarr Gayen Gayen teew na teew na fi la yendu fi la yendu Ibrahima Sine Ka Cendu Ibrahima Sine Ka Cendu teew na fi la yendu fi la yendu Alaaji Daraame Karawan Mbombe Alaaji Daraame teew na kër Amar Mbombe kër Amar Mbombe Ibrahima Diabo Ibrahima Diabo kër Laay Faat Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye kër Sall kër Sall kër Alaji Abdoulaye Gueye kër Alaji Abdoulaye Gueye kër Amad Sëri kër Ngaata moo leen kër kër Ngaata kër Ngaata Omar Jawara Omar Diawara. fédération bi ñëpp teew nañ. fédération bi yëpp teew nañ. mais ma santoon. maa ngi gërëm waa réew mi. di leen sant. lii. lii. moom moom. bëggoon. ngeen bëggoon. woote nañ. nañu. ñu ay si nañ. ngeen ñu wisi nañu. yàlla nañ ko teewee. yàlla nañ na ngeen déwén. def jàmm ci réew mi. def jàmm ci réew mi. képp. xettali bindee fi. xettali bindee fi. faj faj aajo biir yi ak yu biti yi kenn ku ne kenn ku ne la nga bëgg sa bopp la nga bëgg sa bopp yéen ko xam yàgg yàlla yéen a ko xam yàlla nañu ko yàlla defal yéen waa Tiwaawan yi yéen waa Tiwaawan ñoom moo Alaaji Mbay Donde gi njabootu Alaaji Mbay Donde gi lii laa daan def ak seen baay leen lii laa daan def ak seen baay ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant yàlla yàlla def leen nag yàlla yàlla def leen nag gërëm leen musal leen ci ndox musal leen ci ndox. ak gàtt fan ak yàqule. ak gàtt fan ak yàqule. Serigne Abdoul Aziz. nee Serigne Abdoul Aziz. ak mboolem Serigne Babacar Sy Mansour. ak mboolem Serigne Babacar Sy Mansour. Papa Malick Sy. Papa Malick Sy. Serigne Maodo Sy. Serigne Maodo Sy. Serigne Mbaye Sy Abdou. Serigne Mbaye Sy Abdou. Sidi Ahmed Serigne Babacar. Sidi Ahmed Serigne Babacar. Sidi Ahmed Alaaji Abdoul Aziz. Sidi Ahmed Alaaji Abdou. ak mboolem njabootu xadara. ak mboolem njabootu xadara. Serigne Moustapha. njabootu Serigne Moustapha. Serigne Cheikh Mansour. Serigne Mansour. njabootu xadara bi Alaaji Abi. njabootu xadara bi Alaaji Abi. Serigne Mor Ndiamb. Serigne Mor Ndiamb. Xalifa Baye Mbacke. bokk ci maam Demba Bunda mboolem li bokk ci maam Demba Bunda ñu ngi leen di di leen ziyaara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah jërëjëf kàddu yi am na solo Baye Cheikh yàlla na yàlla bàyyi ñu ngi leen di nuyu nee ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ziyaara nuyoo bi ak ziyaara bi nuyoo bi ak ziyaara bi borom a nga ca Tiwaawan borom mu nga ca Tiwaawan Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Abdoul Aziz Al Amin comme niñ ko limee woon léegi rek. comme niñ ko limee woon léegi rek. mu ko ci bokkam. mu ànd ko ci bokkam. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. bu ñëwee ci moom rek. bu ñëwee ci moom rek. tudd nañ ñëpp. tudd nañ waaye pour yaatal rek. waaye pour yaatal rek. pour war a gën a rek nii. pour war a gën a wane rek. sëñ Abdou. sëñ Abdou. bokkam yëpp. bokkam yëpp. ñu ngi ci ginnaawam tey. ñu ngi ci ginnaawam tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. sëñ Babacar Serigne Maodo Sy. Serigne Maodo Sy. El Hadj Malick Sy bu sëñ Babacar Sy. El Hadj Malick Sy bu sëñ Babacar Sy. Sidi Ahmed Sy bu sëñ Babacar Sy. Sidi Ahmed Sy bu sëñ Babacar Sy. Serigne Babacar bu Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh. Serigne Babacar bu Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh. ak seen i rak. ak seen i rak. ak seen i doom. ak seen i doom. doom ya. doom ya ñu ràññee ca ñu ràññee ca Serigne Mansour si Jamil Serigne Mansour si Jamil Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Mansour Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Mansour borom daara ji borom daara ji Serigne Moustapha si Serigne Moustapha si mu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ak seeni rak ak seeni rak ak seeni mag ak seeni mag ak njaboot Seydil Hadji Malick yëpp ak njaboot Seydil Hadji Malick yëpp fa tabaarakallaahu nee fa tabaarakallaahu ñooñu nag ñooñu nag seen kaddu seen kaddu mooy kaddu mooy kàddu. Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Cheikh Ahmed Tidiane Niass. ak njabootu mooy kàddu. mooy kàddu. Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ak njabootu Serigne yëpp. yëpp. mooy kàddu El Hadj Ablaye Thiaw. mooy kàddu El Hadj Ablaye Thiaw. njabootu Limamou Laye yëpp. njabootu Limamou Laye yëpp. mooy kàddu Cheikh Bou Kounta. mooy kàddu Cheikh Bou Kounta. ak njabootu maamam yëpp. ak njabootu maamam yëpp. mooy kàddu. mooy kàddu. Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. ak njabootu Serigne Touba yëpp. mooy kaddu. mooy kaddu. waa kër Abdou Khadir Jeylaani. waa kër Cheikh Abdou Khadir Jeylaani. ba Medina Baye Baas Baye Medina Maas. ba Medina Baye Maas. Serigne Modou Ka. Serigne mooy kaddoom. mooy kaddoom. di kaddu. di kaddu. njabootu. njabootu Baye Maas ka yëpp. Baye Maas ka yëpp. nee fa tabaarakallaahu. daanaka lu ñuy wax amatu fi. daanaka lu ñuy wax amatu fi. sant yàlla. sant yàlla. olof day wax ni. olof day wax ni. ku am kuddu. ku am kuddu. lakk. du lakk te ku sañoon nag. te ku sañoon nag. Ah, bu xew-xew amee. sa njaboot sa njaboot. ci sa kanam. toog ci sa kanam. doxalal la. doxalal la te njaboot gi doxal nañu. njaboot gi doxal nañu. li ñu doxal rafet na. li ñu doxal rafet na. fa tabarakallahu. nee fa tabarakallahu. fii Mor Niang waxee léegi rek. fii Serigne Mor Niang waxee rek. Ah, dinaa fi wax tuuti rek. man mais dinaa fi wax tuuti rek man tamit. man de bu ma sañoon. nee man de ma sañoon. gàmmu Serigne Babacar gu ne. gàmmu Serigne Babacar gu ne. dinañ fa woy mbéyaanu doy. dinañ fa woy mbéyaanu ma sañoon sëriñ bi ne bu ne. gàmmu sëriñ ba bu ne. dinañ bu ma sañoon. bu ma sañoon. bu ne. gàmmu sëriñ Babacar bu fa way. dinañ fa way. asmaalik yaay kenn du. asmaalik bu ma sañoon. bu ma sañoon. gàmmu sëriñ sabab lu leen. way yi ma sëriñ bi ne woy yi ma wax nii. aajo bu mën dafa amul. aajo bu mën dafa amul. woy du woy du woy comme woy biti yi. bi ne woy yi du woy comme woy biti yi. xooleen Cheikh El Hadj ne xooleen Cheikh El Hadj ba mu wooyee Serigne Babacar ak léegi. ba mu wooyee Serigne Babacar ak léegi. ci xalifatu Cheikh bi. ci xalifatu banu way moo ko féeteeti kaw moo ko féeteeti kaw ba mu ko woyee ba léegi ba mu ko woyee ba léegi ba mu ko woyegul ba mu ko woyegul benn way melul ni moom benn way melul ni moom dafa am woy yoo xam ni dafa am woy yoo xam ni yàllaa ca roof roof leeram yàllaa ca roof leeram kon fa tabaarakallaahu kon fa tabaarakallaahu yal nañu yàlla defal tawfiix yal nañu yàlla defal tawfiix mu mel ni sëriñ bi ne mu mel ni imaam Kéba Ñang imaam Kéba Ñang li mu bëggoon yëpp li mu bëggoon yëpp imaam Ahmadou Faye defal na ko. imaam Ahmadou Faye def na ko. li ma waroon wax yëpp. léegi li ma waroon wax yëpp. imaam Ahmadou Faye wax na ko. imaam Ahmadou Faye wax na ko. xanaa nuyu Baye Cheikh rek. xanaa nuyu Baye Cheikh rek. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ak ñi mu tudd ñii. ak ñi mu tudd ñii. ñoom Pape Diallo. ñoom Pape Diallo. ñoom El Hadj Dramé. ñoom El Hadj Dramé. ba ci imaam Kéba. ba ci imaam Kéba. Serigne Babacar mii toog. Serigne Babacar mii toog. service la ko fi indi woon. service boo ko fi indi woon. waaye ba tey service lay dox. waaye ba tey service lay dox. mu ngi dox service Serigne Babacar. mu ngi dox service Serigne Babacar si turandoo. fii ci tund wii ñu nekk nii. fii ci tund wii ñu nekk nii. ah kon fa tabaarakallahu. ah kon fa tabaarakallahu. yàlla ngeen yàgg a taxawee. yàlla ngeen yàgg a taxawee. yàlla ngeen yàgg a jiite njaboot gi. yàlla ngeen yàgg a jiite njaboot gi. fa tabaarakallahu. fa tabaarakallahu. mu mel ni. mu mel ni. ah imaam Keeba. imaam Keeba. dafa wax ni waxoon naa ci laab daaw. dafa wax ni waxoon naa ci laab daaw. mooy base bi. ne sëñ bi ne laab mooy base bi. bu amul rek. bu amul dara du baax. dara du baax. moo tax ma wax ca. moo tax ma wax bu amul. bu amul julli gi baax. julli gi du baax. su defee kon. ne su defee kon. xanaa ma mus ci julli tuuti. xanaa ma mus ci julli tuuti rek. julli nag. julli nag mooy lépp. mooy leen. ëllëg yomal xiyaam. ëllëg yomal xiyaam. jullit bu ne. jullit bu ne. dañ lay tegaleel sa document. dañ lay tegaleel sa ci kanamu yàlla. ci kanamu yàlla. moom la yàlla njëkk a seet. moom la yàlla njëkk a seet. bu ko seetee. bu ko seetee. bu baaxee rek. bu baaxee. sa lépp. sa lépp lu ñaawoon. lu ñaawoon. yàlla dina la ko jéggal. yàlla dina ko jéggal. ci barke julli. ci barke julli. waaye bu ñaawee. waaye bu ñaawee. loo rafetle. loo rafetle. yàlla soxlawu ko. yàlla soxlawu ko. kon julli googu sëriñ bi ne julli googu. ñu bàyyi ko xel. ñu bàyyi ko xel. buum ji takke. buum ji takke. diggante Seydina Muhammad. diggante Seydina Muhammad. ak jullit yi. ak jullit yi takke. takke diggante yàlla. diggante yàlla. ak jullit yi. ak jullit yi mooy julli. mooy julli. kurul julli. kurul julli. yéefar nga. yéefar la mën a jur. ku a jur. boorul julli. boorul julli. ku la mën a jur ku la mën a jur ku la noo mën sant noo mën a sant boo dul julli boo nga foo mën a bokk foo mën a bokk boo dul julli boo nga julli boobu nag sëriñ bi ne yow yaa war a góorgóorlu yow yaa war a góorgóorlu ba mu baax ba mu baax bu laab gi xisee baax bu laab gi xisee baax yaa war a góor yaa ba mu baax ba mu baax xàmmee xàmmee say farata say farata. boo nee Allahu akbar. boo ne Allahu akbar. nga xam loolu lu mu doon. nga xam loolu lu doon. nga xam lu mu doon. xam lu mu doon. boo siggee. boo siggee. nga xam li mu doon. nga xam li mu doon. xam li mu doon. nga xam li mu doon. loolu nag li la koy a xam. loolu nag li la koy a xam. nga seeti. nga seeti imaam Keba Niang. imaam Keba Niang. dala ci lënt. dala ci lënt. loolu. sëñ bi ne loolu. almadaris. almadaris. xablal masajid. xablal masajid. bala ngaa dem jàkka ja. bala ngaa dem jàkka ja. la nga jàng. la nga jàng. la ñuy def ca jàkka ja. la ñuy def ca jàkka ja. naka lañ koy defee. naka lañ koy defee. te loolu. te loolu. te daara ji lañ koy xamee. te daara ji lañ koy xamee. te jàng nag. te jàng nag. minal mahdi. minal mahdi. ilal lahdi. ilal lahdi. Seydou Hadj Malick moo ko waxoon. Seydou Hadj moo ko waxoon. ba ma xamee loolu. nee ba ma xamee loolu. ca berso. ca berso. ba ca kuusu bàmmeel. ba ca kuusu bàmmeel. nee na suba su ma xëyee rek. suba su ma xëyee rek. xam lu mu tuuti tuuti. lu mu tuuti tuuti. benn bind. benn bind. boo lëggee ma xam beneen. boo lëggee ma xam bu yàggee nga xam. bu yàggee nga xam. teewlu ba. teewlu ba. bu ne Allahu akbar. boo nee Allahu akbar. ay maratib la nag. ay maratib la nag. am na ñoo xam buñ kàbbaree rek. am na ñoo xam ni buñ kàbbaree. kaaba gaa ngi seen kanam. kaaba gaa ngi seen kanam. ba ñu foog ni. ba ñu foog ni. bu ñu tàllalee seen loxo. bu ñu tàllalee seen loxo. laal ko. laal ko. loolu bokk na ci li tax julli a baax. loolu bokk na ci li tax julli gi a baax. wala am na ñoo wala am na ñoo xamante ni buñ seen bët. seen bët seen bàmmeel lañ koy teg. te jàpp na nañu ni. te jàpp nañu ni. bu julli gi jeexee. bu julli gi jeexee. balaa julli gi ci des a ñëw. balaa julli gi ci des a ñëw. seen borom mën na leen a jël. seen borom mën na leen a jël. te bu julli gi baaxee. te bu bu julli gi baaxee. bu leen seen borom jëlee ci diggante. bu leen seen borom jëlee ci diggante. ñu dem àjjana. ñu dem àjjana. am na ñoo xam ni. am na ñoo xam ni. bu ñu kàbbaree. bu ñu kàbbaree. seen ndeyjoor. seen ndeyjoor. àjjana lañ ci gis. àjjana lañ ci gis. seen càmmoñ. seen càmmoñ. ñu ngi ci safara. ñu ngi ci safara. te bu julli gi baaxee. te bu julli gi baaxee. dañuy dugg aljana. dañuy dugg aljana. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. bu ñu kàbbaree. bu ñu kàbbaree. ca tukki ba. ca tukki ba. bu Seydina Muhammad ba. bu Seydina Muhammad. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. subhaanallazi. subhaanallazi. asra. asra bi abdihi. bi abdihi. laylan. laylan. min al masjid al haram. min al masjid al haram. ila al masjid al aqsa. ila al masjid al aqsa. ba keroog muy egg ca yàlla. ba keroog muy egg ca yàlla. ba ko yàlla jox julli. ba ko yàlla jox julli. am na ñoo xam bu ñuy julli. am na ñoo xam bu ñuy julli. loolu mooy ñëw ci ñoom. loolu mooy ñëw ci ñoom. ba Seydina Muhammad. ba Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. toog ak yàlla. toog ak yàlla. saalam bi ci saalam ba ba muy bëgg summi daal yi ba muy bëgg summi daal yi yàlla ni ko bul summi yàlla ni ko bul summi exil exil maa la invité maa la invité jox ko julli juróom jox ko julli juróom mu nekk juróom fukki julli mu nekk juróom fukki julli muy jaabante ci diggante yàlla ak Moussa muy jaabante ci diggante yàlla ak Moussa Moussa di wàññi Moussa di wàññi ngir yërëm ñu ngir yërëm ñi muy wàññi muy wàññi ngir yërëm ñi ngir yërëm ba mu des juróom ba mu des juróom mu ni ko dellul ñu wàññi mu ni ko dellul ñu wàññi mu ni ko rus naa ko mu ni ko rus naa ko bàyyi ma yóbbu juróom yi bàyyi ma yóbbu juróom yi yàlla mu baax mi yàlla mu baax mi ci bëgg doomu aadamaam ci bëgg doomu aadama ak bëgg koo teral ak bëgg koo teral juróom fukki julli yëpp juróom fukki julli yëpp mu doxañ ko mu doxañ ko ci biir juróom juróomi julli ci biir juróomi julli yooyu julli yooyu nag julli yooyu inna salaata inna salaata tanha tanha anil fahshaai wal munkar di nga boo wax lu bon. gis nga boo dee wax lu bon. di eh, jàmm ji ñuy wax nii. mooy temu gàmm gi. mooy temu gàmm gi. boo dee wax lu bon. boo wax lu bon. wala ngay def lu bon. wala ngay def lu bon. saxal ci julli rek. saxal ci julli rek. te di ko defee nii ñu la waxee nii. te di ko defee nii ñu la ko defee. laab ga mat. laab ga mat. teewlu bu mat. teewlu bu jàngal sa aaya. jàngal sa aaya. boo ma a teewlu bi it. teewlu bi bokk na ca. bokk na ca aaya bi ngay jàng aaya bi ngay xam li muy firi ngay loolu ci xeetu teewlu julli la bokk loolu ci xeetu teewlu julli la bokk teewlu julli dafa bari teewlu la dafa bari nga mel ni nga mel ni ngi gis sa borom yaa ngi gis ko gisul nag boo ko gisul nag yow nga yëg ni yow nga lay gis sa borom mu ngi lay gis su ko defee kon ne su ko defee kon julli gi julli gi dafay daal di baax. dafay daal di baax. di la génne. di la génne ci jëw. ci jëw di la génne. di la génne ci jëf ju bon. ci jëf ju bon. di la génne. di la génne ci xol bu bon. ci xol bu bon. di la baaxal. di la baaxal. di la sellal. di la sellal. ci ngay dem ba génn. ci ngay dem ba génn. cadre muslim. cadre muslim. dugg ci cadre muumin. dugg ci cadre muumin. di yéeg ci garaatu yàlla yi nag. di yéeg ci garaatu yàlla yi nag. diggante nujaba. diggante nujaba. budala. budala. awtaat. awtaat. ba keroog nga egg ci axtaab ya. ba keroog nga. egg ca axtaab ya julli moo la ca yóbbu julli moo la ca yóbbu moo xam julli farata yi la moo xam julli farata yi la moo xam julli naafile yi moo xam julli naafile yi kon ñu góorgóorlu kon ñu góorgóorlu ci sunu julli yi ci sunu julli yi sëñ Babacar ni nag sëñ Babacar ni nag wa illaa wa illaa fa kullu salaatihim fa kullu salaatihim faxshaa'u faxshaa'u bu ni lii amul ci yow rek bu lii amul ci yow rek yow miy julli yow miy julli ren ba déwén ren ba déwén set set ci yàlla set ci yàlla sa xol set sa xol set nga yéene ñëpp lu baax nga yéene ñëpp lu baax bis bu ne nga yëg ni yaa ngi a baax bis bu ne nga yëg ni yaa ngi gën a baax bis bu ne nga yëg ni yaa ngi monté ci yàlla bu ne nga yëg ni yaa ngi monté ci yàlla sëñ Babacar ne bu lii amul sëñ Babacar ne bu lii amul daaw ba daaw ba ren julli julli baaxul baaxul te julli ñu la koy xëppaat ëpp naa def ëpp naa def Cheikh Ahmadou Bamba. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. sunu maam la. sunu maam la. sunu maam la sunu maam la. nee na sunu maam la. Mamati Mbacke. Mamati Mbacke. mooy jigéenu baayam. mooy jigéenu baayam. Mamor Anta Sali. Mamor Anta Sali. ñoom ñaar ñoo bokk baay. ñoom ñaar ñoo bokk baay. Mamor Anta Sali jur Cheikh Amadou Bamba. Mamor Anta Sali jur Cheikh Amadou Bamba. Mamati Mbacke. Mamati Mbacke. jur Ousmane. jur Ousmane. mu jur Seydi Hadji Malick. mu jur Seydi Hadji Malick. kon xanaa kay ñun am nañ droit wax ci ñaar ñëpp. kon xanaa kay ñun am nañ moo jékki-jékki. moo jékki dégg ñàkk julli. dégg ñàkk julli. mu woote. mu woote. woote boo xam ni. day seetal boppam. day seetal boppam. waaye it mu bind. waaye it mu bind. ci téere yi. ci téere bàyyi ko fi. bàyyi ko fi te te zawdu ziha. si Amadou Bamba ko bind. boo demee. boo demee. li imaam doon wax ci fiq. li imaam doon wax fiq. ba ni sëriñ Cheikh nee nañ jàngiwaat téere fiq yi. ba ni sëriñ Cheikh nee nañ Touba. Serigne Touba. bàyyiwul aj Makka. bàyyiwul aj Makka. bàyyiwul or. bàyyiwul or. bàyyiwul asaka. bàyyiwul asaka. lépp la bind ci téere boobu. lépp la bind ci téere boobu. ni yàlla yëpp. ni ñuy jaamoo yàlla rek. bi mu ci julli la. bi mu ci julli rek. daf ni. julli. ku ko waar dañ ko waral ñetti fan ñetti fan bu ñetti fan yi matee bu ñetti fan yu matee mu lànk mu lànk bañ a julli bañ a julli Serigne Touba nee na Serigne Touba nee bi nañ ci jaasi lislaam ci jaasi lislaam buñ daggee bopp bi buñ daggee bopp bi ci jaasi lislaam ci jaasi lislaam ko sang buñ ko sang buñ ko sang buñ ko sang buñ ko suul ci sëggi julli buñ ko suul ci sëggi julli imam ratib imam ratib imam Kéba Niang imam Kéba Niang ko jullee bu ko jullee nañ seet benn waay rek ci dëkk bi ci dëkk bi koo xam ne xam na ni jullit la koo xam ni jullit julli yow nga am julli bu njëkk lii la sëñ Touba atte lii la sëñ Touba atte ci kurul julli ci kurul julli ku gis leneen ku gis leneen lu sëñ Touba bind lu sëñ Touba bind ci ñàkk julli ci ñàkk bind wala mun la saaganeel julli wala mun la saaganeel julli wala mun la bàyyil julli wala mun la bàyyil julli maa la gàddu maa la gàddu ku ko gis ku ko gis na ma ko woon na ma ko woon Cheikh Seydi Hadji Malick Cheikh Seydi Hadji Malick sunu wayjur sunu sëriñ sunu wayjur sunu sëriñ te jagsaaw te jagsaaw dafay yéenelu dafa yéene lu. tisbaar la. tisbaar wala takkusaan. wala takkusaan mu ne na gaa yi bàyyi liggéey bi. mu ne na bàyyi na liggéey bi. dem julli ji. dem julli ji ba pare. ba pare doo ko ñëw kon na ci liggéey bi. doo ci liggéey comme ni mu ko waxee rek. comme ni nga sa sëriñ. liggéeyal sa sëriñ. ba bàyyi waxtu wi. yaa ngi mel ni. yaa ngi mel ni kuy jaamu xërëm. kuy jaamu xërëm. xërëm yi neen jaamu ca Makka. xërëm yi neen ku def loolu. ku def loolu. bàyyi say waxtu julli. sa sëriñ. ngir liggéeyal sa sëriñ. yaa ngi ñooñu yéene yam. yaa ngi ñooñu yéene. ñoom Aboo Jahlin. ñoom Aboo Jahlin. ak ñoom Aboo Lahab. ak ñoom Aboo Lahab. ca xërëm yi daan jaamu. bi mu yéeneloo. bi mu yéeneloo. mu woote. mu woote. ki mu yebaloon. ki ndox la. bàyyi ndox la. Euh, euh, euh, nguuda buub la la kum ci maa doon ci ñoom kum ko xanaa waxoo li ma la wax li ma la wax wax naa ko de mu ne ko wax naa nee nañ gars yi nee nañ dañuy xaar ba ñibbi dañuy xaar ba ñibbi buñ ñibbee buñ fay seen bor ndax yow la liggéey ndax yow génn Seydi Hadj Malick ya sol karbat waaxu ba waaxu ba ci digg tool yuuxu yëkkati kàddoom yuuxu yëkkati kàddoom ñëpp tiit ñëpp tiit mu ni génn leen sama mu ni génn leen sama bala ngeen indi mbugalu yàlla ci sama kaw ci sama kaw ak ci seen kaw ak ci seen kaw. wa taariku awqaati. mu ngoog. yaa ngi mel xërëm bi gën a mag. jaamukatu kon bu ñu wax ay njàpp kon bu ñuy wax ay njàpp ay tiim ak. ay tiim farataak. loolu yëpp. loolu lépp li ko tax a jóg dëgg-dëgg li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy julli gi baax mooy julli gi baax mooy defar julli gi mooy defar julli gi Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu dañ ko doon sàkketal dañ ko doon sàkketal mu ngi ci biir mu ngi ci biir waxtu yu jot na waxtu yu jot na julli na julli na mu génn fekk gaa yi sàkket mu génn fekk gaa yi sàkket mu leen ndongo yi mu ne leen ndongo yi julli ngeen a julli ngeen a lu ko ah Mbàkke jullee gu ñu de ah Mbàkke jullee gu ñu dañoo bëggoon a eggale laaj wi dañoo bëggoon a eggale laaj wi sëriñ sëriñ boo koy topp boo koy topp da seet la muy def da ngay seet la muy nga di ko def nga di ko def topp ci ginnaawam topp ci ginnaawam loolu mooy sëriñ loolu mooy sëriñ sëriñ mooy ki mooy ki la woo ni la ni la kaa ñu ànd jaamu yàlla kaa ñu ànd jaamu yàlla dafa julli ba pare dafa julli ba pare mënoon naa julli ñëw toog mënoon naa julli ñëw toog ñu ngi koy liggéeyal ñu ngi koy liggéeyal mu toog kontaan mu toog kontaan waaye daf leen laaj ndax julli ngeen waaye daf leen laaj ndax julli ngeen ñu ko dañuy eggale laaj ko dañuy eggale leen mu ni bi ñuy nodd fu ngeen tolloon ci laajte bi fu ngeen tolloon ci laajte bi ñu ko am Mbàkke fii da tolloon da mun teppi ko mu ne teppi ko li ngeen fi sàkket yëpp teppi leen ko li ngeen fi sàkket yëpp teppi leen ko bu waxtu yu jotee bu waxtu yu jotee booba ngeen waroon a arrêté booba ngeen waroon a arrêté dem julli ji dem julli ji kooku kay kooku kay digalul kenn ni ko ni ko bul julli bul julli Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick digalul ni ko ni ko bul julli bul julli Limaamu Laay. Limaamu Laay digalul kenn. digalul kenn ni ko. ni ko bul julli. bul julli Cheikh Bou Kounta. Cheikh Bou Kounta digalul kenn. digalul kenn ko. ni ko bul julli. bul ko. ko bul julli. bul julli kon jullee ngoo. kon jullee ngoo. muy primo. salaati ali yufarrada mawlana wa salaati ali yufarrada mawlana wa hurmali salaati la لآخر ما أوصى به مصطفى في حالة العلم سيدنا محمد مولى مجد دنكاني sëñ bi nee na sëñ Mor loolu moom la mujjee dénkaan. mooy julli. mooy julli. ak ndénkaan yi. ak ndénkaan yi. njaboot sa loxo. njaboot yi sa loxo. yi nga moom. yi nga moom. ak nempat yi nga jur. ak nempat yi nga jur. ak ñi ñu la dénk. ak yi ñu la dénk. su ko defee kon. su ko defee kon. jullee ngoog. jullee Seydi Hadj Malick wax ni Seydi Hadj Malick wax ni yaa man yuriidu yaa man yuriidu jinaanal xuldi jinaanal xuldi yeskunuha yeskunuha faqaddiman faqaddiman talabal miftaaxi talabal miftaaxi budul <coughs> caabi ji i caabi ji caabi ji caabi ji nag benn jiituwu ci benn jiituwu ci julli julli julli julli bu ko yàlla nangoo rek bu ko yàlla nangoo rek ubbil la bunti àjjana ubbil la bunti àjjana su ko defee julli yooyu nag li koy baaxal li koy baaxal ah, moom lañ doon leen junj léegi ah moom lañ doon junj léegi moom lañ junjoon daawit moom lañ junjoon daawit julli yooyu tamit julli yooyu tamit lii tax lii tax nga man koo jëriñoo nga mën koo jëriñoo ëllëg ëllëg yowmal xiyaam yowmal xiyaam mooy lan mooy lan tahaaratul qalb tahaaratul qalb nga laabal sa xol nga laabal sa xol mooy tax mooy tax julli yooyu nga mën koo jëriñoo nga mën koo jëriñoo boo dee jàpp mu sell ngay julli mu sell ngay asaka mu sell ngay dem màkka mu sell te sa xol bii te sa xol bii yéene woo ci kenn lu baax kenn lu baax du ki nga bokkal jàkka ji du ki nga bokkal jàkka bi du ki nga bokkal bureau bi du ki nga a doon rek kum ci mën a doon rek teraanga ba mu am teraanga ba mu am yaa ngi koy jéem a yàq yaa ngi koy jéem a sa làmmañ ci sa làmmañ ci sa pexe ci sa pexe ci say sunguf ci say sunguf ci say reen ci say reen ci say fas ci say fas min charri min charri nafasaati nafasaati fil uqadi fil uqadi ci ayu ci ayu ëf ëf yi ëf ëf yi fil uqadi fil uqadi pas-pas yi ci pas-pas yi alxuraan la ko wax alxuraan la ko wax kon yooyu yëpp am na kon yooyu yëpp am na yooyu yooyu seetal la ca baax seetal la ca baax sunguf bi. sunguf bi am na bu baax. am na bu baax def ko. def ko reen bi. reen bi am na bu baax. am na bu baax def ko. def ko fas bi. fas bi am na bu baax. am na bu baax def ko. def ko waaye la cay lor doomu aadama waaye la doomu aadama. doomu aadama doomu aadama bàyyi ko. bàyyi ko bala mu laa xañ. bala mu laa xañ sa jaamu yàlla ëllëg. sa jaamu yàlla naka la la koy xañee. naka la la sa digganteeg nit ñi. sa digganteeg li nga ci li nga ci daan wax. li nga ci daan wax. baaxul woon. baaxul woon tam nit ki la woon. tam nit ki la woon. tuumaal nit ki la woon. tuumaal nit ki la woon. yàqal ko liggéeyukaayam. yàqal ko liggéeyukaayam. dem ca chef am. dem ca di wax. di wax ba ñu dàq ko. ba ñu dàq ko wala ñu dégraté ko. wala ñu dégraté ko. wala nga dem ci sëriñ. wala nga dem kooku sax du sëriñ. kooku sax du sëriñ. waaw du sëriñ. du sëriñ. sëriñ. sëriñ du gaañ nit. du gaañ ci baati dem. ci baati dem. di bind di bind. jibar la rek. jibar la rek. ba gaañ ba gaañ nit. yooyu. bu bare bu baree dafa lay yàqal sa ëllëg. dafa lay yàqal sa ëllëg yow ma xëy te jàmm ji imaam Kéba wax léegi. te jàmm ji imaam Kéba wax léegi. Seydina Mouhamad. Seydina Mouhamad. moo ko signalé. moo ko signalé. mais boo ko amee. boo ko amee. nga sédd ji. nga sédd ji sa mbokk jullit. sa mbokk jullit. noo leen ci séddee. noo leen ci séddee. sa lamañ. sa lamañ. noo leen ci séddee. noo leen ci séddee. sa loxo. sa loxo. almuslimu. almuslimu man salimal. man salimal muslimuna. muslimuna min. min lisaanihi. min lisaanihi. wa yadihi. wa yadihi. julit dëgg-dëgg. ki nga xam ni. mooy ki nga xam ni jàmmal na. jàmmal na mbokki julitam. mbokki julitam. ci làmmiñam. ak ci loxoom. ak ci loxoom. seetal xaatimi. seetal xaatimi. ni mu bëree. ni mu bëree. waa daara ji xam nañ li may wax. waa daara ji xam nañ li may wax. xaatimi. ni mu bëree. ni mu bëree. nga jël aaya. nga wala ay baat. wala ay baat. sumuun. sumuun. bukumuun. bukumuun. xomyuun. xomyuun. jël turu nit. jël turu nit. adat ko. adat ko jël yooya. jël yooya. adat ko. adat ko boole ko. boole ko dagg ci xaatim. dagg ci xaatim. teg ci taal bi. teg ci taal bi wala nga suul ko. wala nga suul ko wala nga daaj ko ci guy gi. wala nga daaj ko ci ko jékki-jékki. koo ko jékki-jékki. paralysé. fekk xaatim baa dox. fekk xaatim baa dox. tension ba ñëw. tension ba ñëw fekk xaatim baa dox. fekk xaatim bu boobaa. bu boobaa yow. yow li Seydina Mouhamad digle. yow li Seydina Mouhamad digle. yow ki tuddee sa bopp sëriñ. yow ki tuddee sa bopp sëriñ. yow ki tuddee sa bopp ni man nga alxuraan. yow ki tuddee sa bopp ni man nga alxuraan. ba lu la neex nga def ko ci. ba la neex nga def jàmmuloo sa mbokk jullit sa mbokk jullit ci sa loxo ci sa loxo jàmmaloo leen jàmmaloo leen ci sa làmmañ ci sa làmmañ jàmmaloo leen jàmmaloo leen ci sa xam-xam ci sa xam yow di ko def lu yow mi jàmmaloo nit ñi jàmmaloo nit ci sa xam-xam ci sa xam-xam te xamuloo ni te xamuloo ni yàlla yàlla noppi na noppi na ala subi rabbikum ala subi rabbikum xaalu xaalu balee balee arwaax ya arwaax ya benn manqué wul benn manqué yëpp a ngi jale kenn ku ci nekk kenn ku ci la yàlla nga war a am ci sa dund yëpp ba nga juddoo ba nga juddoo ba keroog ngay génn àdduna ba keroog ngay génn àdduna yàlla programme bi lépp yàlla programme bi lépp yow nga am man-man yow nga am man-man ni damay bëgg a yàq loolu ni damay bëgg a yàq topp seytaane topp seytaane musiba la musiba la li muy waral li muy waral ëllëg yomal xiyaam ëllëg yomal xiyaam ñu jalal la ñu jalal la say yiw say yiw ba mu toll ni montagne Uhud ba mu toll ni montagne Uhud ña nga doon jëw ña nga doon ak ña nga doon xaatim ak ña nga doon xaatim ak ña nga doon daggreen ak ña nga doon daggreen ak ña nga doon wax lu bon ak ña nga doon wax lu bon ko te baaluñu la ko ñooñale ñooñale buñ séenee safara safara muy melmeli muy melmeli ci seen point yi leen war a yóbbu àjjana ci yi leen war a matul matul te ñu seen la. te ñu seen la nga amee leen ay àq. nga amee leen ay ñu xam ne buñ ko jëlee. ñu xam ne buñ ko ci yow. ci yow nga fay leen ko. nga fay leen ko dem àjjana. dañuy dem àjjana bu dee sa ndey sax. bu dee sa ndey sax da koy jël si ci yow. da koy jël si ci yow bu dee sa baay sax. bu dee sa baay sax da koy jël si ci yow. da koy jël ku ñëw. ku ñëw kéem tolluwaay yi na nga ko amee ci àq ci at ñu tibb ko ñu tibb ko jox ko mu dem jox yi ñëw ñu tibb di joxe gars yi ñëw ba sa jalu yiw ba sa koor ga sa koor ja sa asaka lépp jeex lépp jeex amatuloo fee amatuloo fee rang bi jeexagul te rang bi jeexagul nan la def nan la ñuy def dañuy jël seen bakkaar yi dañuy jël seen bakkaar yi lu toll la nga leen ameloon lu toll la nga leen ameloon ci place yiw tegal di jël di ci teg ba jalu yiw boo fa nekkoon ba jalu yiw boo fa nekkoon jalu bakkaar remplacé ko ko sëriñ nag. sëriñ Cheikh nee na. loolu. loolu làmmañ bu tax. làmmañ bu tax. jaru ko jaru ko. ñàkk yéen nit ñi lu baax. ñàkk yéen nit ñi lu baax. jaru ko jaru ko. nañ yéenante lu baax rek. nañ yéenante lu baax. nañ jëlleente. nañ jëlleente. wal kaazimiina al ghayza. wal kaazimiina al ghayza. wal aafiina ani naas. wal aafiina ani naas. inna allaha. inna allaha yuhibbul muhsiniin. yuhibbul muhsiniin. jëllale. jëllale. jéggale. jéggale. te kenn ku ci nekk. te kenn ku ci nekk. nga bàyyi xel li ngay wax. nga bàyyi xel li ngay wax. sama baay. sama baay. Alaaji Mor Xuj Si. Alaaji Mor Xuj Si. dafa am lu mu tàqaloo ci làmmiñ bi. am lu mu tàqaloo ci làmmiñ bi. boo ñëwee. boo ñëwee di wax. di wax ak koo mën a doon. ak koo mën a doon. foo daaneele sa kaddu. foo daaneele sa kaddu. wala xam na ko de. wala yàlla xam na ko bàyyi. bàyyi nangam nangam. nangam nangam yàlla xam na ko de. yàlla xam na ko xoolal fasul yéene passé yàlla xam na ko. xoolal fasul yéene passé yàlla xam na ko. ba keroog ngay pare. ba keroog ngay pare. moom bu amee lum la wax moom. moom bu amee lum la wax moom. seet ko seetantal ko. seet ko seetantal. ba teg ko ci yoon. ba teg ko ci yoon. wax la ko nga dem. wax la ko nga dem. kon kooku mu ngay seetal boppam. kon kooku mu ngay seetal boppam. kon fa tabaarakallaahu. kon fa tabaarakallaahu. dégg naa léegi itam. dégg naa léegi itam. Euh, euh, Ahmadou Faye Amadou Faye wala Mor Niang. wala suñu moom déedéet yow mi yaa ko wax. ah ñun ñii ñoo ko wax. nii. nii Seydi Hadji Malick. Seydi Hadji Malick. El Hadj Mor Khoudiss. moo ko jullee. moo ko jullee. loolooy li wér. loolooy li wér. dama dem ba Europe. bi ne def nañ ci. def nañ ci keneen. keneen ku jullee dama respecté famille. moo tax tudduma tur wi. moo tax tudduma tur wi. waaye julli kooku julliwul Alaaji Maalik. waaye kooku julliwul Alaaji Maalik. Alaaji Mor moo ko jullee. moo ko jullee. d' accord naa nag. d' accord naa nag. ñu tudd. kooku bokk na ca mbooloo ma. bokk na ca mbooloo ma. nañ wax li am. nan wax na ca mbooloo ma. bokk na ca mbooloo ma ma jullee Alaaji Maalik. mbooloo waaye ki jiite Alaaji Maalik. jullee ko. jullee ko kàbbar. Tamba mbooloo mi topp ci ginnaaw mbooloo mi topp ci ginnaaw alaaji Mor Khoudia Sylla alaaji Mor Khoudia Sylla kooku kooku baayam baayam ak baayu Seydi Hadji Malick ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu dafa jar di leeral loolu dafa jar di leeral kon fa tabaarakallah kon fa tabaarakallah ñu tëj waxtaan bi rek ñu tëj foofu waxtaan bi may sàkku nag sëriñ bi ne may sàkku rek ci waa daayira bi ci waa daayira bi rawatina nag xale yi rawatina nag xale yi bu gàmmu Banjul jotatee bu gàmmu Banjul jotatee nañ ma wallu si lan moo waral. domp ci sot la bokk. domp te daan ngeen ko def. te ngeen ko at yii la ngeen bàyyi ko. at yii ngeen ko. imaam imaam Kéba lay poñe nag. imaam Kéba lay poñe. ci xale yu góor yi. ci góor yi. ak xale yu jigéen yi. ak xale yu jigéen yi. sol seen asobi yi. sol seen vert yi. ñëw. ñëw ca gàmmu ga. ca gàmmu ga gàmmu suñ Babacar la. la. comme bii ni mu nekk gàmmu suñ. comme bii ni mu nekk gàmmu suñ Babacar. te ñi may wuy si nag. te ñi may wuy si nag. yéen a ci gën a néew paas. gën a néew paas. fu ne lañ di jóge sëriñ bi de fa nekk leen di. yéen nag laa bëgg ngeen di ma teerul si gan yi. yéen nag laa bëgg ngeen di ma teerul si gan. daayira daayira Kaarang. daayira Kaarang. maa ngi koy wax. maa ngi koy wax. borom dëkk. borom dëkk Alhaji Badara. Alhaji Badara. fa tabaraka di ko wax présidente bi. di ko wax présidente bi. di ko wax it nag. di ko wax sama doom sama doom Mouhamed Niang Mouhamed Niang di ko nuyu di ko nuyu di ko sant di ko sant di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla kon imaam kon imaam fa tabarakallahu fa tabarakallahu sëñ Babacar sëñ Babacar leen nuyu baax leen ziar nuyu baax leen ziar dagg foofu waxtaan bi rek dagg foofu waxtaan bi rek ñaan yàlla ñaan yàlla dajawaat fi déwén dajawaat fi déwén sëriñ Abdou Aziz Al Amin sëñ Abdou Aziz yàgg ñoo jox mission bi. yàgg ñoo jox mission bi. ñu yàgg ko doxal. yàgg ko ko doxal. yàlla defal ko prolongation. yàlla defal ko prolongation. yàlla mën na ko. na ko. am na ko. am na yàlla ko yàlla def. ndax li mu bóof. ndax li mu bóof. li rafetal. li mu rafetal. li mu aar. li mu aar. yàgg fi rek a baax ci moom. yàgg fi rek moo baax. moo baax ci ñu nit. moo baax ci ñu nit. kon yàlla fi yàgg lool. kon sëñ Abdou Aziz yàlla fi ay maamam. ay maamam am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne maam Makhtar Penda si. maam Makhtar Penda si na dund na téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar fukk ak juróom ak juróom ay bëñam ay bëñam dara foq ci dara foq ci ba mu génnee àdduna ba mu génnee na fa liir buy naam bàyyi na liir buy naam yàlla am na ko mën na ko yàlla am na ko mën na ko si tafsir demba bunna si bin dundoon na dundoon téeméeri at téeméeri at ak fanweer ak lu tegal am lu tegal te demoon na ba paralysé te demoon na ba paralysé demoon na ba mënatul a génn demoon na ba mënatul a yàlla def wér ci moom. yàlla ba benn guddi rek. ba benn guddi rek. mu nodd ja. mu nodd ca jàkka ja. foofu jigéen ju baax a fa jaar. foofu jigéen ju baax a fa jigéen ja mooy kan. jigéen ja mooy kan. mooy maam Soxna Ndiaye. mooy maam mooy maamu. mooy maamu Cheikh Hadj baax. Cheikh Hadj mooy maamu. mooy maamu El Hadj Mansour. El Hadj Mansour. mooy maamu. mooy maamu Habib. Sëñ Habib ak seen jigéen. ak seen i la sunu maam mujj jël. kooku la sunu maam mujj jël. buur ba Jolof. buur ba Jolof moo ko ko jox comme soxna. ko ko jox ceddo yi dañu dañu yeewoo. ceddo yi dañuy yeewoo. ba ñu xamee ni. ba ñu xamee ni li ñu yor ñu ngi koy bëgg a ñàkk. li ñu yor ñu ngi koy bëgg a ñàkk. te ci kër sëriñ si la jëm. te ci kër sëriñ si la jëm. ñu jël seen i doom. ñu jël seen i doom dugal ci biir kër sëriñ. dugal ci biir kër sëriñ. boo demee kër sëriñ Touba. boo demee kër sëriñ Touba. seen i sët nga fay fekk. seen i sët nga fay fekk. boo demee kër sëriñ Hadj Malick. boo demee kër sëriñ Hadj Malick. seen i sët nga fay fekk. seen i sët nga fay fekk. maam Soxna Ndiaye moom. maam Soxna Ndiaye moom. moo ñëw. moo ñëw fekk sunu maam. fekk sunu maam. toogaayu werd ba. toogaayu werd ba. jàpp tànk ya. jàpp tànk ya. ba mënatu la dox. ba mënatu la dox. soxna si xam ni. soxna massage man na ko faj. massage na koo bu guddee rek. bu guddee rek. mu tëral góor gi. mu tëral góor gi jël karitéem. foroote ko. ndox mu tàng mi. ndox mu tàng mi lekk bu baax bi. lekk bu baax benn fajar rek. benn fajar rek. ñu dégg mu noppi. ñu dégg mu noppi ñëpp jóg. ñëpp jóg kooku koy xalaat sunu maam. kooku koy xalaat sunu maam. soxna see ko taxawu. soxna see ko taxawu. bu mu wér. ba soosu. soxna soosu moo jur moo jur aram bonko si aram bonko si as sa soxna si as sa soxna si ma di soxna si ma di soxna si aram bonko si aram bonko si ñu yóbbu ko aafe ñu yóbbu ko aafe mu am fa safeedu ñax mu am fa safeedu ñax ñu delloo si safeedu ñax ñu delloo si safeedu ñax jox ko Seydi Hadj Malick jox ko Seydi Hadj Malick aram bonko moom aram bonko moom mook Ousmane mook Ousmane ak Ahmadou ak Ahmadou ñoo bokk baay ñoo bokk baay as sa soxna as sa soxna moo jur Maxtaar moo jur Maxtaar Maxtaar moomu Maxtaar moomu moo jur moo jur Fatim Ale si Fatim Ale si Fatim Ale Fatim Ale jur jur Maxtaar Pam Maxtaar Kebe. Pam Maxtaar Kebe ak Alaaji Kebe. Alaaji Kebe mu jur Pam Maxtar Kebe mu jur Pam Maxtar Kebe mu jur Xalifa Kebe mu jur Xalifa Kebe mu jur sama soxna Ndey Faatu Kebe mu jur sama soxna Ndey Faatu Kebe loolu dama koy leeralaat rek loolu dama koy leeralaat rek pour bu ngeen dajee tey ñoom bu ngeen dajee tey ñoom ngeen xam ñooñu ngeen xam ñooñu naka lañ mel ci biir famille bi naka lañ mel ci biir famille kon fa tabaarakallah kon fa tabaarakallah yàlla fi day wax déwén yàlla fi day wax déwén ñu bokk def Fatiha ñu bokk def Fatiha salaatul Fatiha salaatul Fatiha qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad falaxi ak naas falaxi ak naas tëjee ko salaatul Fatiha tëjee ko salaatul Fatiha ñaan yàlla ñaan yàlla booleem mbooleem ku nekkoon ci suufu kaaraange ku nekkoon ci suufu kaaraange suufu njombaatu yëpp. suufu njombaatu yëpp. te nekk ci biir suuf tey. te nekk ci biir suuf yëpp. ñaan gi ñuy def nii. ñaan gi ñuy def nii. yàlla lay sa wàll ci gàmmu gi. yàlla lay sa wàll ci gàmmu gi. ñi daan yëngu ci gàmmu gi. ñi daan yëngu ci gàmmu gi. te nekk ci biir suuf tey. te nekk ci biir suuf tey. yàlla seen reer ak seen añ ci gàmmu gi. yàlla lay seen reer ak seen añ ci gàmmu gi. di njëggal lu dul jeex. di njëggal lu dul jeex. ñu ñaan yàlla yaatal ko nag. ñu ñaan yàlla yaatal ko nag. comme ni ko Seydi Hadj Malick yaatal. comme ni ko Seydi Hadj Malick yaatal. ca biir ñaanam nga. ca biir ñaanam nga. wasaami xan. wasaami xan. waalidina. waalidina. wasuyu xawama. wasuyu xawama. xat wala du. xat wala du. wasawil islaami. wasawil islaami. yàlla xool li mu ko ñaanee xoolal ñu ko yaatu. dem ba ca biir rek dem ba ca biir rek. muy wasawi islami rek. muy wasawi islami ku nekk jullit rek. ku nekk jullit ak foo mën a nekk rek. a nekk yàlla nga bokk ci ñaan. yàlla nga bokk ci ñaan. ba yàgg mu jékki-jékki. ba yàgg mu jékki-jékki. xeeb loola. xeeb loola ñaana yaa yaatalaat ko. yaatalaat ko faxfir lanaa. faxfir lanaa waliman. waliman min baynina. min baynina nasabun. nasabun mu ni daal. ku ma bokkal ci diine. ku ma bokkal ci meen. ci deret. ci deret ku ma bokkal te bañ jalee ndox ma bañ jalee suuf sa. te bañ jalee suuf sa. ban ba ban ba ak ndox ma. ak ndox ma fas tabax aadama. ñu ne ko waa ñu tuubul nag. ñu ne ko waa ñu tuubul nag. mu ni day doon leer. day doon leer dugg ci xoluwaay. dugg ci xoluwaay. mu dem ci imaam. mu dem ci imaam. tuub tuub bokk ci biir ñaan. kon ci barke Seydi Hadji Malick. kon ci barke yàlla nangoo noonu. yàlla ko yàlla nangoo noonu. mu nekk suñu yàlla bu mu nekk suñu. mujj gaaw yàlla nañ fi dajewaat at yu bari yàlla nañ fi dajewaat at yu bari ah, Pape Fall jërëjëf sëriñ bi nee na Pape Fall jërëjëf sama sëriñ sama sëriñ ah, Mor Niang Mor Niang sama turandoo sama turandoo ñoo bokk benn turandoo ñoo bokk benn turandoo yàlla na ngeen ko yàgg a taxawee yàlla na ngeen ko yàgg a taxawee ah sama jamaale bii nag ah nee na sama jamaale bii nag maa ko dàq foofu tabarakallah <laughs> auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin amiin. amiin. يعلم بالعلم وخلقه ولم يكن من شيء عليم يوم الشاق وشاق الجزاء اللهم إني نورك لولا الإخلاص العظيم والإكرام والمحبة والقصد والتوفيق والسنة والأمر إلى آخره وأن ذلك من تشبيه عبد الله إلى الله فخر والمرض ظاهر وباطنا إن بعد ما تشاء كالجيوب به بسم الله الرحمن الرحيم ولو أحد اللهم صل على نبيك ونبينا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالناس والناس والناس من شر الوسواس والناس من الوسوس والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لك صدرك امين يا رب العالمين إنا مع الرسول يسرا مع الرسول يسرا جاب الأزهار الذين وسلمت بالرحمة الله آمين يا رب العالمين وسع مغفرتي وفاصل من يديني برحمتك وسع يا كريم السمح والعظيم الذي لم تحتاج لم تلام من عقب استقاقها يا يا سيدي يا سيدي نسألك على سرك بعد النار بالسر اللهم صل على النور لك وسر اسباب داخل الخلاف ومفتاح الباب يسأل سيدنا محمد المختار وآل الأبحار وسلم خير على النبي اللهم يسر لنا كل امر بالكامل يا خمر يسر لنا دبر جميعا اللهم يسر لنا كل امر بالكامل يا خمر يسر لنا دبر جميعا اللهم يسر لنا كل امر بالكامل يا خمر يسر لنا دبر جميعا يا من يروم خير الدارين دون تعف يا من يروم الدارين دون تعف لا تجوع تعف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 neexal xel bu ci yàlla àndee incha allah bi ñaar fukk la rek ci taabal bi boobu ñëw ci taabal su altan la koy naan boole ko suba ci tàkkal yàlla parce que sëñ Babacar lépp lu mu ñaanoon na xam incha allah ñaar fukk wasala mbalum naam ak ñaani sàccee bayre jaay bi waa ak boru suñu teex bi jërëjëf sëñ bi yow mi ñu taabal bopp bi mooy miim sa dënn bi mooy xaaj xaaji ndigg li mooy miim ñaari tànk yi di deer muy muhammad alaaji ma silla sa góor ga na ma moo tax rakka bu ne ahmadu la mhm. boo nee allahu akbar lii fu ahmata ngo booru kowee xaagaa ngo nga sigi sujjoot sa jëbi sa ñaari loxo sa ñaari bëti woom mii mu ahmadongo boo siggee toog muy del muhammadun ahmadu maahil haasiruna nabi marhamatin tawil multahama wasalliyan ya ilahi وفينا عبادا أنا محمد المختار الختامي moo tax yonent bi du moroomu kenn bay mbay doon da sa góor ga nee na faatiha ñaata turi yàlla ci nekk turi yàlla ci nekk moo tax tariqa bi luñ la ci wax boo ko xamee it neel xaw ma ko rek xamoo am na benn góor Seydi Xaaji Maalik da koo jox tur mu ni ko kii amoon naa ko mu ni ko waaye joxuma la ko woon bii doose nañ ko te bee doose wuñu ko woon waaye ba mu génnee mu ni bu ma wanul woon ni xam naa ma def ko kéemaanu jamono waaye bala koo balaa faatu ma def mu am ci fatku ma ni ko bàyyi xaw ma ko mu ni ma jàngal bismillaahi allahoo ngo allahoo ngo allahu ñaata xaraf la gaay allahu ñaata xaraf la gaay allahu ñeent liif laam laam alsaqee bàyyi mbay ni ma ñeenti rakka tisbaar ngo rahmaani mu ni ma bàyyil alif ga ko xëcc ca kaw raa xaa miim nuun du ñeenti xarafa ngo mu ni ma ñeenti rakka tàkkusaan ngo rahiimi raa xaa yaa miim ñeent ngo mu ni ma ñeenti rakka yi gee ngo alhamdulillahi rabb raaba ñaari rakk yi suba